main eh cek cek cek cek wah wait gis tasma regiter me Brasa Entertainment nyung dan nyung setan gandian talent TV reliable talent fofu no reliable promotionable everything able Gambia talent promotion bulu bulu comme ko nek bulu ni stupide torop ko bulu bulu bulu ma ngi lu ma ci lu jangal ceng Gambia ya, dan promosi cuma nakat dari aye Gambia ma beg ci yéen Gambian Talents TV yéen a ma tax a jóg saa su ma weete lay dégloo man def ndaw seen doomu ndey dee begi, may begi, ma leen di Gambian Talents TV kenn la amul roy da leen kàllal ko fa rek saa su ne seen bu ne di news music entertainment nkaali yende wo koye ñulle naata ka musicoolu kidimandi ñulle naata ka artisoolu kidimandi ñulle naata ka jaɗo gañandi ñulle naata o ka jololu fanan fintindi facebook oto youtube facebook oto ko youtube gambia talent muna promotion lem gambia talent muna promotion ngonde jaworode mari bunka wate wate muna nke juwele wate wate muna nke lamoile wate wate muna nke la gambia talent gambia talent kan tol sewon ni kan tol ŋañan ni ngam mbiya talent muna ngam mbiya talent muna ngam talent woye ngam talent woye ay wali pa ousmane diouf inimbala tefaale ngoyaan yi may ndey mbilla gi sentiment show ci Gambian Talents TV. xew-xew bu rëy lu neex a neex te xumbate dagan di sentiment show nag ma ànd ko ak Pa Ousman Joob. dama ne lii dina bu ndox pataas de teppeeku laa wax ma yàggaleen koo wax bépp góori Gambien bu jonge man nga piraat man Pa Ousman Joob indil leen sentiments nag ay at ngeen di ko laajte taay yépp maag jàllu jéeri dinaa ñëw ak suma ay cuuraay. ñëw su ak suma ay nemmale ñëw ma ak suma ay xarba fuufa yi nga xam ne ci biir néeg bi duma ko wax kenn nag indil leen liy xew ci cabinet yi liy xew ci ronlal yi ak fu ne nag si ma ma dellu si waat moom mu ne am na xarba fuufa yeeg yu bon yeeg yu baax yu tëlin yeeg yu xesew yeeg yu si sëy yi si cuuraay yi si neemale yi si sew yi askan gi lépp loo xam ne dañ ko ragal a wax rek man nii maa ko nar a waxtaan yi liy xew ci saal yi liy ronlal yi lii xew ci wàññeek wanag yi lii xew ci mbedd mi ak ci biir kër yi. na mel ni làmbi golo te duma ci wax lu bari nag sentiment soo lañ wax ëmb na lu bari. fuñ ne sëy ne sentiments fuñ tudda néeg ne sentiments fuñ tudda loof ne sentiments fuñ tudda relationship moo tax ma génn ak yéen ci fii nag. sentiments su duma ci wax dara dina mel ni taana biiri banaana ku dugg a tarakiisu li ma nar a wax li ma nar def ah sima si beneen facette. lii dina bu ndox pataas ba teppeeku dina dëgg sa bum laa wax ma ànd ak kan nag bi yoon si ma ay dara ñu nar a ñëw jàkkaarloo nag xale bu jigéen bi ne man laay tojal yi nga bàyyi waane gi dina mel ni làmbi golo ma nar a defanteeg moom nag yu baax ñu indil leen waxtaan yuy xew ci jamono good morning good evening good afternoon fu ñu way di deglo di ñu sétane ci ñeneenti koñi aduna. penku xarpu ngop wala ngalandu ñu ngi leen ay di len dalal fi ci Gambian Talents TV sen benen programme la bi ñuy wax sentiments pa Ousmane Diouf nekkal len ci gannaaw microphone bi andak Sima Haydara nak ñu ngi lay ay bégee ku bu baaxa baaxa baax képp ñuy déglu képp ko ñuy sétane rek duñ len jox dig dajé muk di len feel Alhamdulillah waxtu bi mom xal nañ tuti. tardé touti liko waral moy ah, xam ngeen ngeen lu lembe TRRC bi mu ngi on kiri di imam Abdoulaye Fati di former imam of State House was at the TRRC mu am pour joxe testimonium nak ñu xam ne ñu bari yéen ngi jublu won ci lolu ah, motax rek ñu indil len show bi mu xaw a ñu ngi leen ay bu baax a baax di len dalal len tatagal ah, last week Friday Maxima indilon nañ len show bi on Valentine's Day ñu dalal leen ne leen nag every week dinañ leen ko indil Monday at 5 pm Gambian time bu leen ko di mboote bu leen ko di tardé ndax dinañ waxtaanee li nga xam ne moo lembe réew mi li nga xam ne nag moo yëngal gëzam li nga xam ne kat moo dégise bum li nga xam ne moo takarnaas li nga xam ne moo bundox pataas kon ñu dellu si waat ak yéen lan lañ leen digoon kerak ñu ne leen dinañ leen waxtaanal topic bu am solo mooy lan sunuy jigéen ñoo xam ne indil nañ ñu seen xibaar ne ñom kat dañ am lu leen naxari seen biir neegi sey yi ñu koy jooytu loolu mooy lan ñu ne seen jëkkër yi duñ dee dem down on dem maanaam duñ leen ni moccal seen cër yi te di seen góor yàkkamti nañ pour seeni jabar yi wala seen partenaire si moccal leen waaye ñoom duñ mocca seen yi jabar yi kon ma am mbégte ak bànneex jàkkaarloog Haidara Karara Haidara number two Haidara two times Faal Haidara nuyu naa la yaa ngi mute yaa ngi mute yéene woon naa ko sax de euh, di la nuyu di la ziar la jox sa wàccuwaay di nuyu nag képp koo xam ne rek euh, heure bi yaa ngi toog sa kanam yi euh, saa si sa saal sa kanam yi télé wala sa kanam yi téléphone di ma seetaan di la wax ne ñu ngi leen a nuyu di leen ziar mm-hmm. di leen jox seen wàccuwaay waaye tey nag waxtaan wi dina dina xawa doy war parce que waxtaan bi nga xam la ñu suñ askan dañ ko ragal waxtaan bi nga xam la suñ askan dafa ka tabu lool lañ nara a waxtaanee te Pa Ousmane jigéen ñi soona nañ ci wala bobu nonu jigéen ñi soona nañ ci waye nak ba rek dina la delloo kàddu bi nga wéyalé waxtaan bi ba ci kanam man tam ma ñëw jox su li ma wax. Uh, ni nga ko waxé rek Sima dafa nekk lo xam lu am solo la ngeen topic bu sensitive la topic la loo xam ne suñu askan duñ koy faral di waxtaanee ah, bi ñuy def sentiments maag Diallo ay at ci gannaaw ñu bari dañ ko daan wax ah, suñ waxee ñu ne ñu da ngeen panka da ngeen fit ngeen ne yéen a sañ ngeen na ñemeñ lu ñëpp du wax yéen a laal and sometimes daf ma dee jaaxal ndax suñ community bi lañ wax xam naa ne caga ju ndaw jàng ñoo seetaan siima xam ne caga ju mag ñoo xam naa ne jeeg-jeeg jege mari yi paaye waxambaane yëpp ak ñoo seetaan an li ñuy wax lu ci bari dinañ toog ne amaana sax nag li ñu wax dëgg waaye ñoom kenn du ko wax yàlla def na nag topic bi bi mu ñëwee ci ñun ñu def ci ci ay gestu lijjanti ay imaam pour ñu si waxtaan ndax sima ñu ne luy xew lu bari dafa am lu ko waral ñu ne gambien si duñ nangoo waxtaanee yenn yi diine lañ wax ñu bari ñuy sukkandekoo sey yu bari ñu ngi tass si jamono ji rawatina bitim rew lu ko tass sex related concerns affaire yi jikker ak jabar bu tedda ñu mom seen bopa jigen ñi ñu ci bari ñoy kaas seen amuñ seen time seen jëkkër yi doxaan si biti seen jëkkër yi xale yu ndaw yi lañu topa seen yi am ak ñom sexe seen jëkkër yi suñ amee ak ñoom sexe duñ leen dee doyloo duñ leen dee satisfy yii la jigéen ñi di kaas lu si bari waaye nag suñ demee ba dajalee euh, maire yi ak paa yi which is usually di case wala kilifa yi sima pour ñu wax diggante bi jëkkër ji ak jabar ji seen boppa rus nañoo ibbi seen gémmeñ ne du may satisfy guddi wala affaire am yi dafa ndaw wala affaire am yi dafa rëy ba ëppa wala jigéen ji góor gi ne dafa tilim affaire am yi dafa xesew wala dafa rëy ba ëppa or whatever the issue is suñ ooyee kilifa yi rek dañoo laam-laamee yëf yi daf ma tooñ du ma dee déggal duy nangoo def li ma ko wax façongi kàddu yooyu rek la ñoo wax siima ak ndax loolu defar na diggante parce que soo ooyee kilifa teg leen ne leen duy nangoo du may nangoo déggal wala du may jox suma gédda ci jigéen ñi that's what the women would say du may jox suma gédda te fekka ci dëgg dëgg moy ne yow da nga bëgg sa jëkkër di la cial say cër comme ni nga mo cialé té du laay mo cial nga dugg fofu sima wa Pa Ousmane lu ci baree bari foog na ni bala waxtani du euh, ngay dem si kilifa yi. Mhm. sa jikar la wala taka si farata yalla sunna su Muhammad. Mhm. Euh, ngeen di sey bo déggee sey da nga sey si léegi jamono bi dafa tëradi waye nak waxtan dafa bax sa jikar la mo la taka waru lepp lo xamne bu nga ko walum euh digante goor ak jigen ku nekk dafa wara jangat li sa borom ga si ci walum teddo bi mhm. soo leen demee dara desut intimité am rek war nga mëna xam sa jikar lim ga war nga xam sa jikar likoy bégal goor itam war na seetlu bul seet yo fo so wàccee rek déedéet goor dafa wara a seetlu tam ban ban moy pointam pour mom tam mu mëna daanu ak lan la ga yeneen saay nag doo jarul sax nga koy laaj loo bëgg am na nooy demee jigéen sëy bés bu nekk da nga war a def research ci sa morom bés bu nekk da nga war a jàngat sa morom lan la moo def pour bëgg si wàllum lal bi jàngat gi mooy lan soo defee bii nga gis ne góor jigéen bi nga xam ne lu ko bëggaat rek neex naa xam euh, waali sexe képp a koo xam ne si both sides si rek am na point booy laal rek borom ni moo behavior di nga xam ne fii mooy point bi nga xam ne moo sensible ci moom point bi nga xam ne moo koo bëggal nañ leen risaaj nañ leen bàyyi xel di dem di làmbaatu ba pare di waxtaan waxtaan gi mooy di di la ca sa soo soo a ah nga ñeene itam bala sex yu bari sex yi muuma la ngeen a sex kenn du jigéen bi sax du nangoo jigéen si wàlli jigéen yi lay ñëw nga gis jigéen yoo xam ne ñu ngi am time ak seen jikar seen jikar xamul sax ne kontaan nañ wala kontaan nañ mm. parce que siiku bi nga war a doo ko def Euh, euh, émotion bi nga war a wone si wàllu sexe doo ko wone yow dinañ fekk jëkkër ji mu ngi laa bégal sax waaye day mel ni yow niw bu tëdda nga jigéen day njaxlaf jigéen day yëngatu jigéen day wone boppam tey nag duma duma dinaa dal suma mbokki jigéen yi torop torop torop mooy ne jigéen day njaxlaf jigéen day bàyyi xel borom këram jigéen itam dafa nii pour waxtaan gis nga rus yi mun naa tas sëy rus mun yau tax nga nek ci nahar bo xam yow kenn dula ko mun a fajal boo tasee sa sey bi ngir ki defalalu lako di nga tas benen sey ngir defalalu lako parce que ñaaka waxtaan day jur fitna ci biir sey nañ leen waxtaan nañ leen def research nañ leen bàyyi xel tam lan nga xam mom nyuko, ñoo bégal ñu ko mun won suñ borom ri fanaa lu rafet na tam pour ñu ko bàyyi xel jërëjëf pa Ousmane kaddu gi am solo sima nga wax fu am solo moy rusel gi nga xam dina nek ci ak jabar jëkkër ak jabar ñu ne dañoo rusante rawati jigéen ñi da nga am filin last week wax nga ko fi nga ne am na ñu sëy ba xubu daas jur li ñoo jur bem jeex te musuñoo daanu wala xamuñ daanu nu mel ci jigéen ñi muy lu am solo te muy dëggit jigéen ñu bari suñ sëyee liñ foog ne mooy naxari wala bànneexi sëy rek mooy jur ci rek am idom. doom ak bégal seen jabar yi xëy suba ba guddi maire yi ak maam yi ñu bari nekkoon ci sey duñ ko daan xam suba ba fajar ñu jóg ñu ngi ci defar ndéewoo soxa tay bojja teg dugub am am cere yi suñ paree defar ndéewoo suñ paree si ndéewoo yi ñu ngee jublu ci añ bi suñ paree ci añ bi ñu ngi jublu ci reer bi dinañ foot dinañ pase, dinañ lem dinañ raxas dinañ sanga xalé yi def yoy yeb su gudd joté dañ dé racc sima ba ñew tedda fofu né lasar comme ba tamu dé seen jëkkar yi def li ñoo def because they are very tired in fact yàkkamti nañ pour jëkkar ji daanu su ko ñu dem because they have to get up at 5 o'clock in the morning pour delluwaat ci tool yi pour ci routine bi maire yooyu ñu ci bari xamuñu woon bànneex bi and PAYE will do what they have to do within two minutes ñu pare si and that's it but di nga gis ne loolu dafa utee ak ja jigéeni jamono ji sima rawatina jigéeni bitim réew nga xam ne dañ ñam ñamaat xamaat dem ardo daanu ba xalangu ci suuf ay yoon su ñëwee nag ba yow am na num demee Wales yaa ngi sëy ak yaa ngi nekk ak ñoom nga leen a jaay na yaay waaja yaay saasu maan di dem di jëfandikoo ca lu ne yaa xam kikiriki nga use yaa xam beneen façon ngi piil nga yaa xam jinjar ngay jëfandikoo yaa xam whatever looy jëfandikoo waaye yaa ngi wane nguura di prove a point ne yowa mana mana mana mana maafe maafe maafe maafe besa maafe jeex nga dese padangi kese ñu bari loolu la ñuy wane te fekka soo demee ba sey nag nga commencé di relax munatuloo dara am na bi ngeen nekkee su ngeen gisee nga profitoog moom di nga dem ak moom daanu benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ci guddi gi di jaay ne yow yaay borom maanaa yow yaa xam yow yaa mun yow yaa am ngeen dem nag ba sey nga commencé doo defati benn si yooyu li nga xam ne moo daan dox sa digganteeg moom yëpp nga commencé di wane ay tànki bukki di benke ñenke yi ñooy yi nga xam ne ñu ngee xew moom la jigéen ñi di jooytu siima muy li daw yaram jigéen ñi tey dañ xam jigéen ñi tey yi ñam jigéen ñi tey yi ràññee luy daanu te muy responsabilité góor ñi nag ñu make sure ñu ngee daaneel suñuy jabar suñuy partners ñu bari nag di ko tegee site ñu bari di ko dégg fànnaaw di nga raada bàyyi sa jabar ci kër gi ngay dem di doxaan ci biti di jaay am maana am na kuma yónnee bagaas ba sima bitim réew fu la nekka boromam jëkkëram duy nangoo def ak moom dara ci lal bi indi na ko bitim réew su demaan Gambia jënd ay bagage yu baax yóbbul ko def ay salañ-salañam of course he goes to the sex dina dem Victoria's sécurite dem ci place yu bari suñ demee jënd ay bagage yóbbul ko mu indi ko bitim réew nekk fa ak moom doesn't do anything for her tu waxee mu ne ko da nga am doom in fact dafa génnee boppam néeg bi sax supposedly because jigéen ji dafa toog kër every day moom mooy xëy di liggéey as a result néeg bu xale bi waroon a moom moom la jël moomale ko boppam mu jël néegi um, uh, seen néeg moom ak jabar ji mu bàyyi fa jabar ji doom ji léegi li moo def mooy falaa nekk ci computer am wala ci téléphone di jagatu guddi gi yëpp fexe nu mu duggee Skype ak xale jigéen ñi Banjul wala def ay mbiram waa ji daal daf doon war a dem Banjul jënd ay wolisam teg di jënd bagage ndanka-ndanka di teg caabi wolis yi ak bakkenam la emale def ko ci biir am am euh, lifinam bi every day fu moo dem gàddu caabi ji yóbbu bés yàlla ko nar a weer rek mu fàtte fa caabi ji daw dem liggéeyi lu liggéey bi xat-xat lu mu sori sori bàyyi na liggéey bi dellu si waat kër pour jël si caabi ji waaye jigéen ak pexeem rek balaa moo egg si jigéen ji and this is a true story I have the pictures Jigen di ibi wolisi si jël fa li moo jël ko ndanka tegal ko chabem. and as this was happening mu si wat ñëw jël caabeem waxut jigen ji dara jigen munko joxut ko dara mu ko observe fi tegon tegoon fa la hamna exactly fim teg caabeem ji fa la ñëwaat fekk fa chabem, mu enu rek yobu waxut jabar ji dara jabar ji waxu ko dara fekk jabar ji jël na yi fi nataal ko ba sent ma story bi and she told me ne ma du yi musa jox sex dinaa ko beeg school naa kii multiple times jabar ji I thought partly the fault was hers wax naa ko yi moo def dina toog sax deliberately àgg na foo xam ne jigéen ji at some point dem na ba bugg a commencé di ma wan boppam vidéo su fekkee ne moom solu na ni mu war a solul jigéenam jëkkëram pour prouval ma point sima and I would not accept it pour prouval ma point pour wan ma ne moom mu ngee def yi mu war def yëpp ma ne ko bàyyi leen di sol sér yu forox yi si kër gi ngaa toog su ma ko waxee loolu mu ree ma ne ko si kër gi nga toog because demuloo liggéey soo toogee foofu noonu sa jëkkër ñëw deel sol yu baax deel sol tay beeco deel takka bin bin sa jëkkër lan la gën a ma ne ko su dee da ngaa taal cuuraay yi mooy li nga wax last week rek di taal cuuraay yi da ngaa sexaaral néeg bi mun naa bilaay du maay cuuraay dinaa taal so def suma spray yu baax weer bu nekk man su ma jotee suma xaalis dinaa seet maa def yu ndaw yu sew yu ma see pour bégloo ko not willing to have sex with man duy paré def ak man dara mu ngi ci fay ak xalé jigen ni rek Banjul so nga imagine koko ngi jënd ay bagage yu paré yobul xalé di jaay fofu ngoura te ci bir kéram duy nango jox jabaram sex sax waxuma la diko ko sima xamna né gaaya ngi taxir lu bëgg pour ñu play audio imam bi dinañ ko play si kanam but we have to do a little bit of analysis ma bay la nga dugg si fofu sima Pausman eh, dama ne sehi mhm. bo demee soxna mhm. muy bula indi wut sax bu fekkon ya ko indi wala mo la indi ku mhm. si mu indi sa morom rek wa nga mu a jox sa morom mhm. moy jabar soko ko be dang ko wara si li islam santane mhm. dekal ko eh, fekkee nak yalla def na tay ñu si Europe bi 50 50 la Europe metti na ku ne parce que ku nekk rek dimbalante moy tax nga mun dem kanam ñaaka dimbalante kon duñ mun fenn Europe la yalla ko dogal diaspora bi non la demee waye nak ne soxna Mm-hmm. déggoo bi nga xam ne mooy sexe bi ngeen war a am amatut mm-hmm. ngala nag loolu dem na ba ponki sëy bi ñoo wax su fekkee diine islam la ñoo wax bu fekkee diine buñ bokka la diine boo xalaat rek déggoo bi si la bokka sëy ak déggoo ñoo ànda déggoo bi mooy sexe bi jigéen doo mun a dëkkaa moom nga ne danga ko taka dëkkoowuloo ko bu demee ba ñaar bu demee tey ba def njaaloo ji mm-hmm. jigóor ji am nga ci waala ñeene yaa ngee njaaloo dëgg la daganut ñeene yaa ngee dem ci beneen góor fekk bañ nañoo tas ngir euh, ni ñi ne dafa tas seyam waaye yeneen saa dinañ leen def loolu loo xam ne am na jigéen yoo bari Pa Ousmane ñu ngee dem jëndaa euh, si sex euh, toy sex toys yi ni la ñoo jënda mm. pour jëfandikoo pour mun a daanu pour mun a bégal seen boppa ñeenay si euh, si internet bi la ñoo nekk di seetaan euh, pono film yi nii mm. pour mun a wàññi seen boppa parce que jomba nañ seen boppa pour dem beneen góor teg leen loxo mm. te nag góor bi nga xam ne moo la aayee boppam mm. islam sax boo ko seetloo mi nga xam ne moom ñun mooy suñ diine mm-hmm. euh, jigéen dañ laa ne su feet dafa def sa naxari danga koy mm-hmm. aaye sa boppa mm-hmm. di ko di ko faj si ñaaka a jëflante moom waaye nag bu passé ñetti fan su mhm. demee nag loolu mënut a nekk si nga dee dem si ki gën a fonka ki nga xam ne moo ko gën a jege. Mhm. nga waxtaan a moom mooy si waali jigéen ji waali mbookaam. yow sa laa njëkkee sax mooy sa wala ki nekk ñal jege yow. Mhm. nga waxtaan ak kim a déggoo yar si kër su fekkee ki gën si kër gi nekku fa. kooku mënalu ko dara yow si nga dee dem moom si famille kum gën a déggool ba tey ñu laa woon ne sëy def ni nga sëy ni ko yàlla fonke dag fase dagan na sëy dagaan na sëy ni mu daganee noonu la fase daganee waaye yàlla lim gën a sib mooy fase mhm. yàlla bugul fase waaye dagaan na de waaye yàlla def koo sib kon looloo tax yàlla mu ne ba tey rek soo defee loolu ba munut si nga dee dem si kilifa yi mhm. loolu mooy last option dem si kilifa mhm. mooy last option third party mooy last option da ngeen ko fexe ngeen faj ko si yari islam ba pare ñaareel amee jigéen tey Hmm. Euh, euh, foog naa ne euh, soo demee bay koo aaye sa boppa is betta nga fase ko moo gën boo demee bay am beneen ñëw na defal yëfi góor yaa rek yaa ko takoon jarut hmm. ngay ko naxaral jarut ngay ko def lu parce que am njaboot juddu na si njaboot juddu wut hmm. njaboot bonus la binduñ ko si benn bug bés buñ laa taka rek by force danga war a am doom doom bonus la di nga gis ñoo xam ne dañoo bugg a bégal seen jëkkër yi waaye suñ ko seen boti jëkkër imagine nga wàcc liggéey ah. sa jabar ba baax teg sa reer reer bi sa am na ñoo xam ne suñ reeree ba pare hmm. dañoo dem toog si tele bi hmm. jabar dina dem ba tëdda afta dina tëdda lu yàgga yoo yaa ngi toog si tele bi hmm. te fekk yeneen saa ñu ngi ko jiin jigéen yi te jigéen dafa wàcce liggéey si diaspora bi dem liggéey ba sona moom mooy ñoo toogal la mooy fompam mooy def yëpp am na góor yoo xam ne sax dañ baax dinañ la dimbale waaye am na ñoo xam ne sax xalaatuñ sax pour raxasal la bool mm-hmm. ñun dañ am benn problème mooy góor buy dimbale jigéen si raxas bool ak yooyu rek ñu ne da nga naka la tuddaat ah, da nga ñàkk a fayda mm-hmm. soo suñ sex life mooy loo xam ne mm-hmm. euh, njëkkee na bi Gambia man noonu laa ko gisee Gambia la suñ sex life suñ bañoo nekk a gunee la ñu jël tënkañu si sex life boo xam ne euh, gan la rusla pas man euh, di nga gis man maa ngi laa wax benn story am na suma benn xarit boo xam ne mm. euh, daf doon sëy mm. suma ñoo dëkkoon daal ñoo dëkkoon benn area mu ngee sëy mm. moo jëkkaram ñu nobante nekk xale yu ndaw mm-hmm. ñu nobante waaye yaay bi mm-hmm. euh, daf daan always suba daf daan dem toog toog si palanteer yi gaay jëkkër ak jabar bi waaw seen palanteer bi su njël yaay kan yaay kan yaay jabar jënda yaay yaay booy bi booy bi suba teel daal foofu mooy volontaire boobu daal mooy grand place am teg xale yuuxoo yi léegi benn bés xale bu jigéen bi soona si so is that ma laaj la ma laaj la was that because of li fa gars yi nekk ndax even before ñu sëy moom foofu moo mos di nekk grand place am eh, ñoom luñ mun a wax daal buñ sëyi dafa fo naa yaay bi dafa fiil ne dafa xam nga am na ñoo xam ne intimité góor ak jigéen bu yàggee yaay yi dañ dee fiir parce que seen doom yu <laughs> góor yi dañ leen dee raawus ndanka ndanka xam nga <laughs> Ya baa nga toog foofu man mm. xale bu jigéen moom ko doon nettali dama ree ba bugg a dee mm. mu ne moom mu because euh, jëkkër bi nekk ku am kersa mm-hmm. so with euh, that ni yaayam dee toogee si palanteer boobu noonu te noise bi ñu war a am si diggante sex boobu noonu parewul mu génna so du daan nangoo am sex that time te moom jigéen bi mu ne lu ko génnoon a loon mooy suba boobu nin show yam bi mu soxla. axankay waaw ko mu ñaar ko muñ ko mu ñaat ko munta dem rek mu jékki-jékki fekk jikaraa ngi toog mu ne ñëpp a ngi toog mu ne amul sexe amaanul sexe dafa jékki-jékki rek ni di autori mu ngi téye euh, lifin bi lal biñ toog tëdda noonu mu jël lal bi di dóor ay diw dig ma rey te defuñ dara <laughs> muy théâtre muy théâtre dama dig ma rey wey yow sa yaay dee su ay waay jongal ay ku la yóbbu wey dinaa ko may lii sa yaay dee su ma eewoo eh, tey billahi dinaa ko may ten thousand xam nga wax wax yoo rëy yoo xam ne dégg naa yaay ja sa la jógee rek moo dégg naa ciibu ciibu yoo xam ma boobu la jël rek wala dem yoona <laughs> so ñu yaay bi moo ma afta si am jaama place maire bi du fa romba sax fee <laughs> eh, jigéen anti si c'est real story yeneen saa yi da nga war a bari feem da nga war a bari feem da nga war a bari technique di nga gis koo xam ne mu ngi siya jabaram ñu ko suñ askan di ah. am na time yoo tool sa doo mun a am sies ak sa sa own own jabar ah, doo mun a am sies ak sa own femme eh, lifin ba pare ñun suñ askan tam dañ am benn problème yoo xam ne mooy mm. rus mm-hmm. muy góor muy jigéen mm. rus daf dee am ba pare ñun yàlla dafa def dafa am suñ askan ñoo xam ne. Mm-hmm. dañ dee dem xaraf. Mm-hmm. am suñ askan ñoo xam ne. Mm-hmm. suñ demee xarab seen sex life daf dee difficult pour ñu am di feeling they want to feel. su fekkee yàlla dogal na. Pa Ousman taka nga ki nga xam ne. moom dafa dem xaraf foog nga laan fan ngay jaar. Uh-huh. jigéen boobu pour max bégal ko. Mm-hmm. parce que am na jigéen yooyu noonu most of the time. Mm-hmm. pour nga dem am na góor yoo xam ne tam ñu ngi complain dañ dee bugg a dem down ja mm-hmm. jigéen bi bañ. yeneen saa yi duñ daf leen dee neex. waaye xaraf biñ dem. moo leen dee fiil ñu pour wane seen cër boobu noonu. Euh, pour góor dem si bi kon dee fiil ne fa góor gi war a mar. fi mu war a dem pour war a euh, jëfa euh, pour lu dee tax ñu ne mar loolu nekkaatu fa. waaye ba tey rek mun ngaa ubbeeku sa jëkkër la. nga jox ko fi moom dina try ba bégal la si anam bi nga ko buggee fanaa tam jigéen itam ñu dem xaraf maa ngi maa ngi leen a masawu di wax ne tam ne eh, jigéen yu dem xaraf tam jigéen yu sonna la si waali sexe jigéen yu sonna la si seen waali sexe du ne am doom rek mooy seen problème waaye tam seen sex life dafa am very very very light chance jigéen yooyu noonu yow yaay fekk ji sa baanee most of the time ku xarafut baanee xam daf dee gaaw waaye ku xaraf bànneexam daf dee yéex soo yow mi nga xam ne danga nga xaraf yow yaay fexe saaj bànneex boobu noonu créer neex boobu noonu mm-hmm. góor gi tam mun a use ay loxoom ay gémmiñam ay tingsam yi nga xam ne dina la mun a def nga put on pour nga put ñooñu on def dee difficult kon dinaa la bàyyi nga xuus ba si kanam euh, xam naa nag moom dinaa ñëwaat ak beneen affaire maa ngi nii toog di la xaar. yéen a ngi déglu di <laughs> seetaan sentiment show fii ci Gambian Talents TV Sima Haidara ak Pa Ousman Joof nekkal leen ci gannaaw microphone bi fii la mooy xoyom-xoyomee nii lañ koy defee saa su nekk ah, di leen fàttali rek suñ topic bi tey mooy góor ñi nga xam ne du ñuy nangoo dem down wala di moccal seeni jabar yi jigéen ñi complain ko nag ñu ko waxtaanee ah, di leen fàttali rek ne di show is life ñi nga xam ne ñoo ñoo déglu wala di ñu seetaan. viewer discretion is advised programme magla du programme xalé kusine ku ci nekit respectal nañ la sa opinion su fekke ne fil nga ne li ñoo wax du pour yow you can kindly log off su fekke ne bugulo pour dega li ñoo waxtane lu affect suñ society la duñ ko lam lamé dañ koy waxtane pour askan bi njëriñu si ndax lim saf kiko ñaka kiko ñama ko xam té mu ngey affect ñu baree baree baree bare si society bi yëfi sex dara la loo xam ne we are very uncomfortable with it ñu ngi struggle with it all the time ñu bari ñu nge ciit jigéen ñu bari ñu nge ciit seen jabar yi seen jëkkar yi dara taxut ñuy ciit because seen jëkkar yi nekkuñ di leen defal liñ leen war a defal kon ñu ngi leen ay béggee bu baax a baax di leen gërëm leen sant seen déglu ak setaan bu rafet ak di leen wax ne Sentiment Show la képp xam ne da nga Euh, patronage show bi rek wala képp koo xam ne da nga bugg a sponsor show bi mun nga ñoo jokku di number is on the screen plus 1 404 593 6215 plus 1 404 593 6215 foofu ngeen ñu mun a jokkoo pour ñu ku bëgg sponsor wala boog ngeen bëgg a déglu audio si si whatsapp ñu ngi amee whatsapp groupe boo xam ne dinañ leen ko fa ah, bëgg di share kon sentiment show la ci Gambian talent TV ñu ngi leen ay bégee bu baax a baax di leen gërëm di leen santa ci seen déglu ak bu rafet ñu dellu si waat rek ci waxtaan bi yéen ñi ñuy seetaan on Facebook su ngeen bëggee jàkkaarloo ak Sima ah, bëgg ko gis nag Aydara Karara di la bégee bu baax a baax a baax di nuyu chéri kokoom rek ki di Pa Modou Fall ak képp ko xam ne ngi déglu di ñu si jamono jamono jii uh, ah, link bi mu ngi non manko pes fofu manko pin on the Facebook ah, video Yen ñi koy sétane su ngeen cliquer on that video dina leen yobbu directly fu ngeen mëna sétane jakar rok Sima ak ah, man suma jëmmi bopa kon ñu dellu si war rek ci waxtaan bi dégg ngeen Sima lim wax ngeen xam jigen fem hamne ngeen xam jigen koko gis ngeen koku fim jaar gorobi kon lenen lo xamne wax nako moy hamne ñi nga xamne dañ xaraf waaw topic boppam la te dañ ko war di waxtaanee bari nañu sëy ak jigéen ñu xaraf ñu ngi leen a sonal bu baax domaine boppam la dinañ fa dellu si waat suñ ñëwee pour waxtaanee ko dinañ dellu si waat si topic boobu suñ ñëwee pour waxtaanee ko waaye li nga xam ne am na solo ba am na solo ba am na solo and we are supposed to talk it tey mooy ñàkk a moccal suñu jigéen ñi ñun góor yi ñu si bari dañ foog ne daanu ñun rek la ko yàlla jagleel siima not only daanu loon boot ñu si bari foog nañ ne bànneexi sëy ñun rek ñoo ko war a am suñuy jigéen suñuy jaam leñ dañ war a ñëw nekk foofu ci kër gi di sëy di sëy nekk fa pour ñun rekk di ñu toppatoo ak toppatoo njaboot gi toggal ñu fóotal ñu paaseel ñu yakkal ñu raxasal ñu and not actually have any form of joy that is far from the truth ñun nuñ amee itte pour bugg a daanu jigéen ñu bari it noonu la ñu amee itte noonu lañ buggee pour di daanu ñoom tamit ci seen néegi sëy yi and ñun as men should do everything possible pour make sure ñu ngey jox suñu jigéen yi bànneex yooyu noonu pour dem ñuy enjoy seen boppa di am seen boppa ñoom tamit kon topic la bo xamne ne mu ngi affect ñu bari jigen ñu bari ñu ngee jëfandiko ay piil bu yagul rek lañ ma yónnee ben uh, audio fu koku di waxe jigen ñi effort yi di def right now amna pil bu génna bo xamne ne ñu ne tabaa lañ ko oyé o whatever ñu ngi def gesto pil bobu according to ku ko baye mo gëna neex goor sax bi ñu ne mo gëna neex goor Jigen ñi ñu ko koo ko diko duggal dugal ci seen ciéri diko duggal ci seen private parts yi suñ ko fa within a few minutes mu sey su seeyee neex gi mo neex mo raw goor gu nekk ci biir jigen joju from what we are told and a lot of women are resorting to that kiko oda order ne duy taxaw su ko jotee lu waral lolu because ñun goor ñi du satisfy suñ jigen wala ñu si bari si ñun dañ foog ne jigen ñi waruñ di daanu te daanu dafa am solo ci néegi sëy siima daanu dafa am solo ci néegi sëy ñu bari nag fan lañ ko dee wéer siima lan wala yan reasons la góor ñi advance pour ñi nga xam ne seen jabar bugga nañ di leen daaneel ñu toog waxtaan ak ñoom wala wax leen ko yan reasons la góor ñi dee joxe as lu tax bugguñoo dem down wala lu tax ñoo am sex di moccal seen jigéen yi seen parti sima am pausman Ousmane jërëjëf jigéen góor yu bari itam di nga gis koo xam ne mu ngi laa ne moom du dem down parce que gémmiñ gi moom gaming bi suy kuy dem down sa gaming du barke foog naa ne gémmiñ du barke loolu waxi kasaw kasaw la parce que ki laa moccal kooku tam yaay la kooku jigéen la kooku jigéen mooy mooy magazine bi nga xam ne euh, dafa yaatu lool jigéen dina doo déggee tey su ne la fi ma toog nii fi ma toll nii su ma ñaani waajur la kon jigéen bu boo demee ba njaboot yaa sa gémmiñ bi yaa see ñaan yàlla mu barke te yow gémmiñ boobu noonu cër bu opposite side check euh, sex bi moom moom ngaa jël di di di mocca cëram yi kon war naa ne ñun tam war nañoo gestuwaat bàyyiwaat xel ne ni nga ni nga ni ni la sa jabar di moccalee noonu nga ko war a moccalee parce que yëf yi du du du du du li ñoo wax man teguñ ko fen parce que jigéen boobu noonu di la mocc soo xamee ne tey loolu dafaa tax sa gémmiñ gi du barke kon jigéen mi nga xam ne moo la jural sa ay njaboot wax ko mu stop di la ko defaral nga gis moom tam njaboot tamit dinañ barke foo naa noonu laa ko gisee ba pare seconde li tam euh, am na góor yoo xam ne tam euh, muy jigéen muy góor dafa am si góor yi jigéen yoo xam ne neexuñoo moccal neexuñoo gem down parce que balaa ngaa dem down da nga war a set ki ñoo demal down dafa war a set mhm. ki ñoo demal down dafa war a watu waaye doo jël sa cër bi nga bàyyi ko ni toolum salaat mhm. ba pare nga bugg a borom dugga si euh, mocal la foog naa ne loolu dina jafe mhm. ba pare jigéen gi nga xam ne yow sa cër gi doo ko ni nga ko war a toppatooyee mu ngi am ay xeet most of the time góor góor bu ci duga su si moytuwul rek ah, comme niñ ko dee waxee rek Ousmane dina dem ak bactéria bu euh, dina dem a feebar sax boo moytuwutee. Mm. wala gémmiñ gi dina jógee rek far mu am ay yi nga xam ne comme ni ma comme ni ma tooñee gars yi mm. dinañ am ratatouille boo xam ne du du neex a faj. Mm-hmm. ba pare ñaareel bi góor tam xam nga mosoo bi taay nañ góor jigéen rek moo war a watu jigéen rek moo war a euh, trier moo war a tekkee boppam déedéet góor itam war ngaa eewu. sa poxotaan yi nga génne ko ba mu set nga wat sa sa sa sa kawar yi mhm. parce que góor jigéen buy siga sa roon tam moom tam mhm. nit la te jigéen yaramam dafa oyof imagine nga duga te góor kawaram dafa dëgër góor war naa mun a jël di wat ciram ram pour mhm. jigéenam su duggee ci ronam rek dina xam ne ah man de dina mun a dem easy ak moom waaye soo demee si ron góor googu noonu nga fekk fa loo fa warta fekka ah. nga fekk góor o watu nga fekk fa yeneen saa itam euh, sax bu fekkee borom seet na sax waaye soo demee ba seet ne ki la ki nga demal ak kawaram ya na sax waaye kawaram yaa ngi taxaw mu ngi am ay pimple yoo xam ne di nga xam ne pimple infection wala leneen la euh, yow muy jigéen fo naa bu noo nob nob góor boobu noonu sax xeel du dal pour nga sega ci ronam. Mm. saa su ne rek set lu ñoo wax euh, down down down waaye down dafa ànd ak set down dafa ànd ak. Euh, euh, set bi nga xam ne boro ak xet bu neex ji nga néew set set set amuloo info euh, wattu nga def nga yëpp xet bu neex neeku fa rek boroom du sawar pour dem down down neex na waaye set number one jigéen dafa war a set jigéen dafa war a dafa war a attract góoram ba su ji nga su ekkatee tànkaam rek góor bi dina am feeling pour dugga ci ron waaye boo ekkatee sa tànka bi xet bi cee génna am na ñoo xam ne euh, suñ amee sexe place sax néeg buñ am sexe doo fa bugg a néeg buñ am sexe euh, suñ da fuñ daanu sax xeeti néeg boobu noonu danga dee gis ba tey rek xet bi daf dee daf dee boo xam ne di nga xam dangaa foog ne dara moo fa dee te nit a fa daanu soo amee xeet yooyu noonu nga xam ne yow try nga pour setal setul am na ñoo xam ne dañ ko judduwaale mm. demal nga dem gis sa docteur demal nga jël am na ñun suñ aada yoo xam ne limon bii nii euh, maa ngay fàttaliku suma yaay bu ñëpp jógaan rek boo leen sangu bala ngeen a sangu dafa yéen ñëpp a dee seen poxotaan yi mu jël limon bi rek def ko fa mu ne ngeen tëj seen poxotaan yi boo sangoo ba pare si la mu jël limon bi fompa ko yëpp am set mu ne jigéen waruta am xet jigéen dafa war a set yeneen saay na am na ñoo xam ne seen laameñ dafa euh, su su foonante tam si la bokka ak gémmiñ si mbugeel daf dee suxal mbugeel waaye doo mun a fóon ki nga xam ne gémmiñam bi dafa xesew doo mun a fóon ki nga xam ne du buroosu doo mun a ki nga xam ne dafa dee nekkut booñ rek la ñoo brosse mu set laameñ dafa am wàlla laameñ moo amee yëpp moo dee lekka moo dee wanaasu moo dee def yëpp képp a koo xam ne rek yaa ngee dem war ngaa mun a jël sa sa sa sa brosse am na tubaab bi sa yàlla def nañ ne defar nañ ay brosse yoo xam ne boo ko tegee sa laameñ nuñ ko brosse ba set te fekka doo laameñ tam yeneen saa yi daf dee garde xet mhm. xetil yi nga xet poñ du ko garde sax lu baree bari waaye laameñ daf dee mun a garde xet dangaa gis yeneen ñoo xam ne buñ ubbee seen laameñ bi rek di fa gis mu ngi am weex tal tal ba dàkka danga daf soo socca sa laameñ di fóon wax dëgg mun ngaa sa taat sax mun naa seet góor gi ñëw pour moccal la kooku euh, gémmiñ gi li see jógee sax yoo danga yoo danga sa taat sa sa sa sa bi mu am bacteria kon góor ñee jigéen yëpp li li lu lu soo setutee rek sa daaw dina jafe soo setute sa daaw dina métti góor day set jigéen day set daaw mu gën a neex fanaan noonu laa ko gisee baaw si mhm. kàddu gi felenku laayu na yéen a ngi déglu di seetaan sentiment show jógee fii ci Gambian Talents TV Sima Haidara ak Pa Ousmane Diouf ñoo leen nekkal ci gannaaw microphone bi di show is live incha allah comme niñ leen ko waxee rek in subsequent shows dinañ leen ibil line si pour ngeen dugga si ah, dafa am audios yoo xam ne dañ ko war play muy imam yi nga xam ne waxtaan nañoo ak ñoom ci affaire yi dem down gi ah, si ma wax na ko mu ne benn bu ci njëkka li góor ñi di rely on wala li góor ñi di wax ah, ne mooy reason lu tax duñ moccal seeni jabar yi mooy ne jabar yi dañ nekk di waxtaan ñu ci bari dañ nekk di wax ne ñoom góor ñi ñu si bari dañ nekk di wax ne ñoom duñ mocca gémmiñ boo xam ne dafa dugga si lefen gémmiñ boo xam ne moom la ñoo tuddee yàlla duñ ko moccee seeni jabar loolu lañ nekk di wax loolu nag is subjectif loo xam ne la dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax a baax am jigéen ñi loolu lañ nekk di wax wala góor ñi loolu lañ nekka di wax si jamono ji dinañ dellu si waat rek pour ñu wax leen naaw góor ñu bari Sima wax na ko ñu ne seeni jabar yi du ñu toppatoo seeni bopp ku wax li wax lele ku wax lii wax lele kàddu gi nañ ko waxte felenku laayu jigéen dafa bari feem jigéen dangaa toppatoo sa boppa yofi diine gi nag dinañ ci ñëw ci kanam lan la ci diine wax dinañ ko bàyyee niti diine yi experts yi pour ñu wax si waaye toppatoo sa boppa dafa am solo ci góor ak ci jigéen ni ko siima waxee nga dem yi daw dang-dang weda góor bi la oo jigéen bi la 24/7 des na si ban façon ngi liggéey def of course it's happening that a lot of us work in an environment where we sit in an in a very conducive air conditioning. Degala, where we are not exposed to anything. ludo talk, nekk sa computer, def sa liggéey. But how about ñi nga xam ne nekkuñ di liggéey Here, nekkuñ di hebl ken liggéeyam. Every type of job is important. waaye bitim rew yalla def na the way it is set up especially te ñun ñu nekk fi la gëna affect the way bitim rew is set up liggey yu bari amu tok liggey bank ñu ci bari da nga dem liggey bank da nga taxaw ñu ci bari be sa sif bi jeex xana so nekké on break liggey nos wala doctor you are going from one room to the other attempting different patients throughout the day ñi liggey ci home care yi ñu si bari yaa ngee throughout the day dem appointment toga yaka rahas, sanga ñi liggéey si warehouse yi the same thing ñi liggéey si parking yi wala si driving bi and stuff xanaa ñooñu but for the most part sa liggéey dafa involve éeg wàcca daw éeg wàcca daw ñaxa nga nekk ci loolu 24/7 weda jigéen la au góor la teppax ak nim xatee sa teppax yi ñaxa toy xep nga ñibi ci kër ci tanga tanga bi nonu nga expect sa jikar pour mu màccal la wala sa jabar pour mu la can we have the decency to clean ourselves can we have the decency to take a shower sima wax nako can we have the decency to brush our mouth at least so sangu wut sax because dafa jël time wala because dafa sedda or whatsoever su dee fi nga nekk amuloo accès su ndox bu tànga oo bëgguloo jëfandikoo mu ndox bu tànga can you just go wash your private parts can you just go wash your mouth rawatina nag su fekkee nga lekk lu am liñoŋ ñun nga xam ne suñ lekk yu si bari dañ ko liñoŋ ba mu sap-sap galik ko laaj ko bem mu sap-sap dafa indi odo no disrespect to suñ mbokk yi nga xam ne dañoo tux cigarette wala naan sàngara Definitely those odors are not very pleasant. Rawa tinasufeke sa partner neko diko ko Nga wara funante koko. Wala jël sa gémmiñ gi tek ko si am private party koko dafa am solo suñ bokki nyobari. ni ñu bari the reality is as you are growing older ya nge commencer di jànkuwanteel with a lot of health concerns suñ bokki jigen ni as you are growing older jigéen ak góor yëpp sax yaa ngi commencé jànkuwanteel with a lot of health concerns and for that reason da nga need pour toppatoo sa boppa yeast infection is very common among our women gis naa ku binda bu yaagut ah, foofu ah, Buuba Sanko mu ne you go with fungal um, yeast infection cleanliness is key to health is healthy do some gym have good night sleep yes lu am solo yeast infection suñ jigen ñu bari dañ ko dé am fungal infection and da nga war di sa bop soko ko yena jigen yi dinañ tok di gis yu bari ñuy gëna ci ñom lu mel ndox del clean sa bop tat the reality is dafa am xéti bopam seriously dafa am xéti bopam té xeet bobu mo fa wara leneen lum xeeñ lu dut xet boobu something is wrong somewhere and you need to see a doctor the reality is private part cër dafa am xeeti boppam rawatina bu jigéen soo ko buggee xam solal sa dross ba for a while nga simi ko xeeñ ko nga seet most likely xeet boobu la moo am on a normal day dafa am nu private part war a rawatina bu jigéen su ko xeeñut rek something is wrong somewhere something is wrong somewhere te da nga nit pour clean loolu góor ñu bari nag ñu ngi complain loolu so jigen boo xam ne yaa ngi seetaan show bi wala yaa ngi koo déglu an doo dee toppatoo sa boppa bu baax si ma wax na ko affaire yi sak am bàyyi sa kawar gi mu which of course dafa gën a indi lii ñu ngi dugg si sama bi tàngaay bi yaa ngi sol yu tight waxtu bu nekk ñeneen ñi ñu sol jiin yaa sol tight loo xam ne dafa genar indi moisture si sa private part bi tax muy ñaxa daf de baax ñu bari si jigen ñi nag dañ def loolu suñ nekkee ci kër gi ñu fiixal si ma am nañu sàcca wax ma nag ne ma jigéen di sol dross da nga war di fiixal dina gën a réyloo sa yëfi dina ko nooyloo dina gën a tax nga gën a moist ma bàyyi la nga xuus foofu ah, wax ñu lan mooy sa teg ci loolu ñu ne daal jigéen warloo di sol de ndax dina la jàppale si yu bari ba tax nga mun a def yu bari waaw ah, Ousmane euh, jërëjëf dañ ne jigéen warta sol dros euh, dros sax si boppam soo ko seetloo fiixal góor ak jigéen yëpp la war hmm. góor war naa mun a warta sol dros bu dat góor yàlla def na ne ba tey jamono bi indi nañ leen different kind of uh, boxer yi nga xam ne diñ ci mun a fiixal sa cër dina mun a fiixal góor war naa mun a sol li nga xam ne moo oyof jigéen war naa sol li nga xam ne moo oyof jigéen bu nekkee kiram fu ne nii loo munta sol rek yow la nee jigéen jeeg si boppam ki nga xam ne yaa ngi sëy waruloo sol jiin si kër gi di wuraalu di tamambaalu jigéen dafa sol oyof yaram bi bàyyeeku li nga yeneen saay so solee jiin sax góor gi bu ko xoolee day tayal lim ci namoon ci guddi gi sax du ko paree def parce que day tayal waaye jigéen am na ni ngaa solo nga oyofal ko ba mu oyof bàyyande ko yaram yi jee nga pare nga def sa seem yi boppa góor gi si boppam di nga mun a toon xelam bi mu dem si leneen loo xam ne noonu nga ko buggee euh, pa pa Ousmane si sa biir wa euh, ñu ngi wax comme infection infection lu mu war a jural jigéen bari na mun tax jigéen bi be time bi nga buggee am njaboot mu jafe la surtout infection bi nga xam ne danga ko dumóoyu fajuloo ko mu dem ba chronique ci sa yaram bi euh, daf dee mun a tax ba infection bi doo mun a am njaboot ñu baree bari ñaaka njaboot infection bu yaagoon ci seen yaram la infection na mun naa nekk nag góor bi nga xam ne toogu benn place dafa cuut fii cuut file euh, te du use kondom at the end bu demee si soxnaan bi nga xam ne moom la takka ci farata yàlla na su Muhammad mu ñëw waala ko feebar boobu noonu nga góor yoo xam ne euh, ñaaka télé bi télé biñ nekkee nii wala ñaaka am doom euh, buñ nekkee ni mu ngi cause si seen euh, infection buñ am comme boy si niñ ko dee waxee nga man maa booy yaa dee campé dañ ko faya <laughs> soo kuñ faya rek soo moytuwul fay fajuloo ko rek def la day mun a jural ñaaka am doom te góor yi dañ baaxoo am infection mu koosal la ñaaka am doom loolu beneen topic la sax waaye doo nangoo dem si docteur doo nangoo faju jigéen yi nekk nañ victime yoo xam ne lépp loo xam ne si ay doom la nekka si ay infection la nekka di nga am infection sax yow mi nga xam ne yow yaa dem jaaloo ba indil ko sa jabar di nga koy accuse sa jabar ne moom moo la ko indil xëy na sa jabar moo tilim fekk yow mii lu tuuti nga ko amee dinañ ko am na si suñ liggéeyukaay mi nga xam ne place bu rëy la jigéen suy saw dafa war a ànd ak ay affaire jigéen saa su nekk rek sa baag war naa am yo euh, di di infectant yi nga xam ne euh, baalal leen ma parce que fi ma nekk la xëy na language bi nga indi yi nga xam ne di nga dugal si sa baat bi mooy nga am sa ay di euh, yi nga xam ne dafa bactéria bi dina ko mun a fi nga dem toy nga am yi nga xam ne dina am di di infectant yi nga xam ne mm-hmm. euh, daf laa dimbale si si si sa wàlli jumtuwaay bi nga nekka mm-hmm. di nga jigéen boo xam ne toilet bu su démé xew mu tok ci toilette bi seben su démé eh, eh, club mu tok ci seben toilette bi seben fu mu dem seben jigen waru tam mom fo tok nga seben so démé be lolu xew rek sa bax so xamé né ki nga xam ne munta denca seben jigéen warta denca seben sa fasa mu na indi feeb ci blada bi jox la problème kon day fexé di jigen day ganna yo ay affaire pour way ci toilette bi nga tok nga bay ko xel euh ba paré sa su nekk rek jigen war mu na a eh, every time jigen war di dem di gis euh, gynecology bi di set euh, bi nga xamne docteur bi nga xamne mom lay ñom ñoo jàng mbiri jigen nga dem ci ñom nga chambar len lila dal ñu la xel war def euh, constat def test bi nga xamne general test la pour li nga xamne ne yaram bi nga xam fan nga toolu mun nga rafet mun ngaa weextal mun nga sanse be jak way li ci sa biir suñ ko duñ ko xam di nga gis na dañ baxo di wax dama am socet nga dem ñu defaral la am euh, butéel def si def si lifin naka ñi ne nga naan garabi soccet la dëgga la naam garabi so soccet am na suñ aada baax na soccet dañ ko dee faj waaye am na yoo xam ne du soccet de am na yoo xam ne infection bi yàgga si sa yaram la soo demee si xëy na docteur luñ koo faj daf laa aaye ten affaire yoo xam ne dina la aaye si euh, pour nga jëfoo euh, am sexe ak sa jëkkër dina la aaye sexe ak sa jabar ba fodi moment ba nga kiyoo ba pare nga doora mun am c'est fa dinañ tesaale ki nga xam ne parce que mun ngaa faju sa partner faju mm-hmm. euh, ba tey rek affaire bi dafa delluwaat si yéen mm-hmm. so su kenn amee infection mm-hmm. sa jabar am na infection yow góor gi demal nga ànd ak sa jabar ngeen faju yéen ñaar yépp nga gis ne seen kër gi dina am jàmm waaye boo fajuwutee jabar gi dem faju ba tey feebar bi du génn yow boo fajoo jëkkar fajuwut jab feebar bi du dem pare ñun tam nañ fexe di waxtaan waxtaan mooy ombal lépp yow góor gi boo demee ba sentir sa bopp am na loo yëg ne yaa ngi okatu yaa ngi génnee ay affaire demal nga waxtaan ak sa jikaat sa jabar bi nga xam ne moo ko tere jigéen itam noonu xëy na soo filee yooyu mun ngaa ne nañ dem si dok yo ah man de dama dem fanaan xëy na euh, ni nga waxee moom dina fay safara bi nga xam ne góor jigéen bi du xalaat ne da nga demoon jaaloo ji xëy na di ko mun a wax si anam boo xam ne dina fone si toilette nga ko amee wala si leneen nga ko amee waaye soo ne da ko soo ko ko waxee rek mu Euh, doo si mun a am luy faj luy luy faj affaire bi te ñun jigéen ñi saa su sa jëkkër ñëwee ak feebar sa su sa jëkkër ñëwee ak infection bul yuuxu si kawam bul dal si kawam si anam yoo xam ne njaaloo njaaloo kese indiwul feebar yooyu noonu mm-hmm. njaaloo kese taxul nga feebar mun na am yow mi dem sebeni si toilet bi public euh, toilet yi yow yaa ko yóbbee sa jëkkër mun na am sa jëkkër tam public toilet yooyu ñoo ko ko yóbbee lu munti doon rek yuuxu fajul dara mm-hmm. waxtaan be jubóo la pour ñu mun a safara xew kon Pa Ousmane affaire bi rek nga dem say kàddu rafet na macha allah felenkulaayu na xanaa sa vidéo bi rek moo xawa network bi moo xawoon ñagas tuuti macha allah ñu bugg rek nga fix loolu soo nii dee pour teg koolaat ndax sa vidéo bi mu ngi xawa lifin a little bit Ah, kon ñu ngi leen ay bëggee ku ñuy déglu di ñu seetaan fu ci waay nekk ci ñeneenti ko ñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu di leen wax ne yéen a ngi seetaan di déglu sentiment show ah, képp ku ñuy déglu on Facebook wala ku ñuy déglu on YouTube ñu ngi lay bëggee ah, Buuba Sonko mu ne if you don't Uh, uh, you after your if you don't take care after yourself you are causing suicidal uh, you are causing suicide to yourself Lena Jai Jain tamit dugg si rek mu ne also need um, to wear panty, uh, uh, um, they need to wear cotton uh, underwear and panty liners. It helps prevent from infection. Avoid putting chemicals in your private parts, in your private areas. dégg sax nag yéen a ngi déglu di seetaan sentiment show jógee ci Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf ak Sima Haydara ñoo nekk ci gannaaw microphone bi képp ku ñuy déglu di ñu seetaan ci ñeneenti ko ñu àdduna penku xarpu ngopp wala ngalando si fu si waaye munti nekk rek ñu ngi leen ay béggee bu baax a baax a baax ci seen déglu bu rafet ak seetaan bu rafet comme niñ leen ko waxee ci gannaaw rek di show is live dinañ leen indil the version of the imam later on pour waxtaan ak yéen li nga xam ne moom la imam bi jot a wax rek as far as the show is concerned ah, dégg ngeen lim jot a wax noonu ah, lu am solo muy affaire infection waaye nag Sima am na leneen lu góor ñi wax ba tey rek ci li góor ñi di coow as far as affaire yi relationship yi is concerned li góor ñi di coow ba du ñuy nangoo muccal ah, jigéen ñi seeni jabar yi seeni private part benn si liñ wax actually coincides with Lena Njaay lim wax ma foog ne sax ne dafa rit suma mind moy lan xarfa xuufa yi nga wax ne dang ko use nga ci sa ah, commercial bi wax nga wax yu reuy waaw suma ngi am suma xar waxu yoo yo xamne pare napur pour jëfandikoo ko xar waxu xuufa yi xa par waxu xa parfa waxu xa xuuxa xa yi jigen ni di ko ñen nañ ci ñom mo leen reuy ndax dégg nañ ñu bari wala gis nañ su ko defee ñu commencé di jëfandikoo ko waxna ci gannaaw uh, pil biñ wax ne mom la jigen ñi di jëfandikoo ci jamono ji pour fajj seen boppa pil biñ wax ne mom la jigen ñi di def ci seen private party ci jamono ji ngir am tiafka ngir mu feel like daano according to kima ma jox information bi pil bobu is even sweeter than sex mo gëna neex gu dugal private partam si sa biir in the process of wanting to satisfy our men or our women xejna ñun goor ñi suñ pax yaatu wut noonu ngene dang ma defal ice cream pour macca ko waaw axan kay dina neex sedda wala nga pasti valdama jigen ñi am nañu ci pasti axan kay yenen yenen chemicals Yohamne, xamne we want it for ourselves suñu am sex. ne dañ ko mu stimulate ñu ay stimulants that we want to apply on our private parts goor gi private part am yaatu wut noonu de comme ni ma ko waxee pax bi am na nu moo demee li nga riib si kaw rek nga koo riib am na nu mu demee nga jos ibbi pax bi tuuti dugal ko fa jéem whatsoever yes we have to pay attention to that jigéen ñu bari suñ defee those chemicals it may be sweet but am na góor ñoo xam ne dañ na jigéen ñi li ñoo jëfandikoo loolu la even ba si cuuraay yi sax and it comes back to li nga wax ci beginning bi siima which is knowing your partner xam sa partner xam lan la bugga xam lan la bañ xam li koy daaneel dafa am solo weda sa partner dafa xaraf wala xarafut weda sa partner dafa dëgër oo dëgërut weda sa partner ciram dafa ndaw wala ndawut weda sa partner dafa reppi oo reppiwut sex is a learning process sëy is a learning process while yéen a ngi ci kawam da ngeen a gën a xamante every day jànga bu ees la every day da nga war a gën a try pour xam sa partner ba pare most importantly tamit nga xam sa boppa yes dangaa xam sa partner xam sa boppa yenay sa jëkkër ak lu mun ci def am na num demee doo daanu yenay sa jabar ak lu mun def amna num deme do danu it's a thing of the mind sometimes da nga nit pour xam sa bopa jigen ñi have G spots you need to know fan la sa G spots ci neka sa parna bi warna na moo mun xam war nga diagnose sa bopa be xam lolu dul la ken mun na waxala ah, yow ya koy fiil de limu saf ku ko ñama ko xam lolu yow yaa koo fiil cafka bobu yow ya ko xam sa parna na neka di dem motax si ma wax na ci gannaaw ne de len di yuxu let's us be morning del yuxu di mon di binni di def ay affaire di sànni sa loxo yi di bére ngu mel ni kuy daanu rab dee di daanu rab ma ne leen gi foofu la affaire bi foofu la nañ def bem bundox patas ñuy daanu rab góor ak jigéen yëpp ku dem ardo sa partenaire war na koo xam su ma la dóoree yëngal ci left side bi rek nga yuuxu ne affaire bi foofu la ma dem ci left bi nga gën a yuuxu cat di def say mbir su ko defee nga daanu rab ma ne foofu la su beneen left side bobo duma ko bàyyi suma la doore ci diga bi nga yëngatu rek war naa koo xam yow it am na foo ma yóbbu rek ma ekkati suma ma la wa yaay yooy bàyyee naa la ko mais naa la suma yaay yaa ma suma yaay yaa ma suma papa wax ay affaire war ngaa xam ne foofu la jàpp foofu sometimes mu am position yoo xam ne itamit nag soo ko defee assez góor is very uncomfortable waaye foofu rek mooy daaneel sa jabar is the fact am na yenn position yoo xam ne itamit soo ko defee assez dina la métti yow it may hurt a but mooy daaneel sa partner of course du foo mun a yàgga am na num laa xotee soo ko continuer di def constantly all the time though it can hurt you waaye su fekkee ne yow góor gi one two minute man nga wala benn ñaar ngeen xeles ak nu munti deme bul di nangu di gaaw a dem jigéen ji bul nangu di gaaw a dem ci fii daaneel sa am am am am fulaa daaneel wala góor gi bul nangu di gaaw a dem bul jigéen ji raada bul nangu di gaaw a dem fuy daaneel sa jëkkër njëkkee leen ci fi laa daaneel yow ndax yow soo àggee ci moom rek mu daanu dégg leen wax ji de su fekkee ne xam nga ne sa na bii soo ko ko joxee one minute mu daanu te ñaareel ñun góor ñi ñooy njëkkaa gaaw a daanu jigéen ñi bul nangoo dem lu bari ci fiko ko daaneel insistal ne ko tey doo ma gaaw a mun de lum ko buga buga musal ko tuti rek bala mo agare nga jog su de two minute man la defal ben thirty secondes rek jog ne ko acha defal sa da nga sante len ko sey filin la duma nangu nga mun ma duma nangu nga jekuma ma outright nga sante la ko mo ak ak ak mom su ko defé nga xam ko way ma ñaax jigen ñi pour ñu bayyi xarfa xuuxa yi nga xamne mom la ñoo yi because am na noo ko defee mun na laa affect jox la infection yi siima di wax nii not only that maybe sa góor laay gu ko nan maa ngi am friend boo xam ne jigéeni gambien bu see jaay jonge ci ay fer ci ay beeco ci ay cuuraay kooku yooyu rek la bañ kum déet nga indi ay fer ak i cuuraay he doesn't like that indil ko Victoria's Secret defal ko taati neen Amalsai candles and the like. He wants the Western style. Yes, the Gambian la. He's a Gambian, but he wants the Western style and not the Gambian style, the Senegalese style. Becho yeg nyom sen. sa boppa nga sonal rek soo kooku yow soo sey ak moom yow everyday soo waxee fu beeco gën a baaxee ma jënda fu beeco cagee ma jënda fu cuuraay gën a baaxee damay order special churai, customized churai. yaa fa jaay paañ de yow yaay dunda yooyu moom dundut yooyu xam leen seeni partner nañ xam suñuy partner si si suñ biir yi néegi sëy ndax mooy yàqa lu bari bari na góor goo xam ne am na fu moo focus ci jabaram foofu du daaneel jabaram téye cu si weenam di ko foyee wala ngeen ne danga koo moccal am na jigéen ñoo xam ne loolu daaneelul leen am ñoo xam ne baaraam leen moo la na daaneel am ñoo xam ne bëgguñ nga baaraam leen you have to know your partner You have to know your partner. Is the bottom line. Simama ba lang nga duga fufu. waaw pa Ousmane eh, comme ni nga ko waxee rek nga ne fufa fuufa xarga fuufa boo ko déggee rek eh, waxin la xam nga mun nga bañ a use dara nga use ko si sa jëma parce que jigéen magazine la am na looy dugal si biir rek mun na laa gàllankoor si ñàkk am jaboot mun na laa gàllankoor si lu bare bare bare so moo tax na doo xëy rek enu euh, loo dégga rek si si si si comme exemple yaa ngay seetaan télé rek ñu wone dara wala ngay seet seetaan dara nga ñu gis ko rek nga dem bàyyi force danga koo jëndaat mhm. am na góor yoo xam ne soo leen jëndalee leneen danga leen daan lor especially dafa def am façon euh, nationalité nga si am na ñoo xam ne suñ mbokk yi nga xam ne ñu ngi siya nit ku weex imaginal nit ku weex ngay siya moom nga dem jël ah, seen mant yi nii nga bugg ko koo moccal danga koy danga koo rocci soo moytu di nga ko yaaxal yaramam bi mhm. parce que ñoom dañ sensitive yaram yi bokkuñ waaye am na góor yoo xam ne euh, bugguñ sax cuuraay am na góor yoo xam ne cuuraay def leen dee def leen dee parce que am na ñu am asma am na ñoo xam ne dañu am asthme. Mm-hmm. am na ñoo xam ne dañu am problème yi bride ak yooyu noonu. Mm-hmm. Euh, cuur euh, su fekkee yow yàlla def nga bu sa jëkkër bëggut cuuraay. Mm-hmm. ya euh, taay yi dafa bari façon façon yi nga xam ne. mun nga koo def si néeg sa néeg neex te doo soona kandul si yaa ngi nii. ak yeneen liquide yu ñoo jaay yi xam ne mun nga ko su dee moom daf ko bugg mu tubaabal. nga jënd sa ay liquide yu baax. yi nga xam ne ñu ngi koo jaay si sob yi nga xam ne ñoom ñoo dee jaay kandul si yooyu. romantique sob yaa ngi fi nga dem foofu jëndal li nga xam ne moo tubaabee moom lim bugga Eh, di nga gis eh, jigen bo xamne dina ne mom sol lu gata eh, naka sol beccoom bu bax def ciuray dem jël ay saf-safal wa nga dem def sa saf-safal ñu ko ci biir ak yoy nonu waaye ndax yow sa partner bi nga demal jangat nga lan la buga mom, ak nan la fan la ko buggee ak naka la ko buggee fanaa lolu is very important si jigen. après góor tam lu si baree bari su demee ci góor yi eh, góor saa su nekk rek moo moo war a fexe jabaram njëkka ko daanu parce que góor dafa selfish góor bu daanoo rek eh, pare na jigéen bu daanoo saa su nekk rek mun naa continuer nu yàgga di def ba kële daanu waaye góor yàlla moo ko bindee selfish mm. li liñ wax rek bu daanoo rek eh, da su wóccoo rek geex na pare na ci yow mm. beneen du ko mun sax si kattan du ko mun mm. xanaa mu jéemee ko waaye su fekkee loolu dal la am na yeneen of métals yoo xam ne mun nga ko use sa loxo yi sa yeneen things yoo xam ne dina mun a def ki nga siixal moom na wàcca si jaama hmm. di am jigéen yoo xam ne dañ dee forcé daanu fekk daanu wuñ euh, euh, parce que lan la euh, yow yaa ngee wax yaa ngee daanu so obviously they want to please you dañ la wax ne moom ñoom tam am commune fekk ñëwuñ hmm. waaye dañ la doon please noonu jigéen dafa xóot jigéen dafa taxaree demal hmm. jigéen dafa nekk loo xam ne suñ aada ak suñ cosaan daf ñu tënka si loo xam ne bégalal sa jëkkër ba sa jëkkër forcé daanu yooyu daf laa indi conséquence yoo xam ne sa jëkkër mu ngi foog ne yow da daanu fekk yow ay ay at daanuwuloo jigéen day wone santiment santimaayam luy fiilinam na nga koo wone li nga fiil yow waxa lii fiil wone ko beneen yoon tam yow fexeel yow ngay njëkk a daanu fexeel yow nga njëkka def li nga def balaa moom muy def li moo def am na góor yoo xam ne mun nga euh, soo am na góor yoo xam ne seen point de faible soo eegee seen kaw rek ñu daanu soo soo xamee am na góor yoo xam ne euh, jigéen. jigéen ma ma doog la ma doog la ma doog la foofu siima mooy li ma wax ci gannaaw soo xamee loolu ne soo eegee si kawam mu daanu bul ko gaaw a eeg bañal lànka bi tëdd si suuf bul ko gaaw a eeg na la eeg moom na la def ay affaire moom benn far daaneel la bul ko gaaw a éeg nga continuer. waaw am na jigéen yoo xam ne tam eeg bi mooy seen filin te eeg boobu mooy dénjal waaw si góor léegi boobu mooy seen feeling soo da ngeen a try ngeen <laughs> yow jigéen bi tam xam nga tam mënuloo am sexe ba pare jëluloo sa concentration def ko si sexe bi waaw sa bot sa concentration dafa war a nekk si sexe bi mhm. sexe ak naxar demut mhm. sexe ak xalaat bu bari demut mhm. soo demee ba nekk ak sa jikkar lépp loo xam ne négatif la pousse ko nga concentré soo surtout yow soo xamee ne doo dee gaaw a daanu soo xamee ne yow danga am problème yi euh, xaraf dangaa concentré di yow li nga fiil feeling bi duga yëpp feeling la su la feeling bi dugaatul rek yow doo mun a daanu parce que ku amul feeling doo yëg am yëg-yëg ku amul yëg-yëg doo daanu kon nañ leen bàyyi xel suñ yëg-yëg yi suñ environnement yi sex tam dañ ko war a bàyyi xel mm-hmm. naka ngaa créer because tey doo wàccee liggéey mm-hmm. eh, yow jigéen bi sa jëkkër jabar ñëw sa jëkkër ñëw wàcca si nga jël ko eh, naka biir si courant bil si ndox bi bili bili bili bil si lii bil si lële ne sa yaay sax yónnee ne mu ne dépense jeex <laughs> uh-huh. sa papa sa papa dégg naa fa feebar mu uh-huh. daan bi yow fooy uh-huh, baax na <laughs> baax na foofu baax na baax na foofu baax na <laughs> ñëw ne la bil si lii de mm-hmm. uh, dalalee njëkka na lekka ba suur balaa ngaa mun a dafa am nooy waxe ji góor bir si dafa am noo ko waxee soo xamee ne tey yow anam bi tey tey tey tey da nga def dara ngalla na bil si teg ko ba ëllëg si soo leen paree si suba si nga door ko wane wallaay doo àgga doo àgga foofu sax am na foo ma àggale yow sax doo laajte bil si man maa laa wax dina fay courant bi dina fay ndox bi dina yone say ten thousand yang ngi wax mbiri xew last week dina la si jox two thousand nga doli ko boromam mom si bopam moy wuccu te duko tay sangal ngagn rek na ngagn set rek mais yo ya ko muna may sa bopp Papa Ousmane waaye di nga jigen tam mhm. sa sa goudi su waré ni mhm. si yow la si bi mhm. parce que len muna to gor tam gor na bay su six joté bul si o'clock góor gu sa guddi mu naxari six o'clock góor bu ko góor si tànn sa sa jabar billahi doo am lu la neex si guddi boobu parce que jigéen itam dañ dee am ar dañ dee am lifin benn lifin boo xam ne mu ci ñoom uh-huh. soo leen laaj rek de dañ dee am distance boo xam ne foog ñu mun koo inhalaat mm. pour mu jël time am na jigéen yoo xam ne nag loo leen def loo leen def dañ ko dee mun a faate ñi nga xam ne li li yàlla tënka ñoom foofu lañ dee jaar ah. dañuy wax ne sax sa jëkkër bu la laajee bu la laajee sa boppa nga bañ euh, malaayka yi dañ laa ruba mm-hmm. waaye maa ngi laa ne la tam yeneen saay ba dur su toj mm-hmm. <laughs> waaw toj di nga gis góor yoo xam ne Pa Ousmane duñ doyal mm-hmm. dañ feebar <laughs> waaw feebar because doo mun a toog monde nga ne yow yaa ngi war a ji jabar bi six five o'clock la war a jóg pour liggéey five o'clock mu ne mu yow boori fo uh, three o'clock mu war nga eeko su suba si uh, boori uh, balaa ngeen a nga bugg a nekk ci boo leen ba ca biir nga nekk ci every day jigéen yi yëpp munuñ ko jigéen yi yëpp munuñ ko yow fexeel nga organise sa boppa ba pare soo paree góor yu bari suñ la laajee every day nga am na bés yoo xam ne da nga soona nga ne ko téere wér dama soona dama feebar waaye yaa malaayka yaa ngi <laughs> yow yow yow foo fan la la ko fay ka di robee nekk nit la doomi adama la suñ xel di jël mm-hmm. mm-hmm. uh-huh. diine uh-huh. uh-huh. mm-hmm. eh, bi nah, di ko confuse ak suñ buga diine bi confuse ak suñ buga buga pa Ousmane lu war a bàyyi xel la lu war a daat la tam pa Ousmane jël diine bi buga ko nootee jigéen bi loolu dafa li na jigéen yoo xam ne tam di seen ting ñoom du eh, ñoo doyal góor dañ feebar fanaa tam dafa waroon a boole. affaire boobu tamit topic yi boppam la boobu topic yi boppam la siima dinañ ci ñëw seriously yéen a ngi déglu di seetaan um, sentiment show jógee ci Gambian Talents TV fii la moo xoyom xoyomee déggati naa dégga dégga ngeen di bëggee rek képp kuy déglu di seetaan seen leen seen comments yi tey acceptuñ calls but mun ngeen a seen seen comments yi uh, Ousmane Laye mu ngi seetaan si Facebook mu ne reppi tamit axankay am na ci ñoo xam ne dañ reppi de Kopul Sané mu ne ca pa Ousmane Laye mu ne pa I want to sleep why but you am enjoying you uh, Buuba Sonko mu am thinking uh, of the local stimulants for pleasure you talk about uh, skin um, allergies um, uh, ñu def research ci lolo mu ne yëpp it has to be agreed abuse comes in there su fekkee ne toll na foo xam ne jigéen ji mun tut ko wala nangoo tut ko rek abuse ñëw na foofu ñi ñëw seetaan ci Facebook bi ñu ngi leen si YouTube bi ñu ngi leen ay bégee moomoo 11 mu ne a li neex na de Aysatu Caam mu ne beautiful my sister Fa Haydara mu ne greetings family moomoo mu ne welcome Haydara Karara Fatou Sonko mu ne Pa Ousmane Baye ma waay Souleymane Mbaye mu ne Pa Ousmane Diouf good job ñu ngi leen ay bëggee ci déglu bu rafet beeg seetaan bu rafet bi yéen ñiy seetaan ci Facebook bi su ngeen buggee jàkkaarloog ah, the beautiful Sima rek dugga leen lagga leen ngeen dugga foofu ca YouTube link bi nga xam ne dugal naa ko foofu wala paste naa ko incha allah di ngeen jàkkaarloog moom. di show is life niñ ko waxee ci gannaaw rek sentiments la. yuy xew ci suñ biir néegi sëy yi ñu ko laam-laamee lii xew ci ron lal yi lii xew ci kaw lal lii xew ci wanak yeeg waañ yi xarfaxu fay su si ma wax dégg ngeen ko break na ko down moom su ma ko dóoree daala rek mu defeen boppam dina yàggat di fen de ndax saay bu ne ma dóor ko daala waaye daf ci am solo nag yooyu am na feem waaye ni ma ko waxee war nga xam sa boppa last week wax naa leen di three things yoo xam ne man mooy di bedrock of my relationship and any other relationship anybody with a relationship or in a relationship benn maa ngi digal képp ku nekk ci relationship ñuy communicate ndax communication mooy the bedrock of everything su ngeen waxtaanut ñu génnee rusukel gi suñ diggante jëkkër ak jabar wala ay partners waruñ di rusante dañ war a xàmmee wante ràññee wante di waxtaan bu baax a baax a baax ñu génnee rus gi suñ diggante number two suñ communicate be xamante ku nekk xam sa morom nga xam sa bopp njëkk ba pare xam sa morom siima wax na ko wax naa ko siima dëgëral ko ne it's a thing of the mind it's a mindset sex su jotee tegee leen lépp ngeen am sen sex it's a thing of the mind you have to put your mind to it in order to enjoy it let's think about it ñu am sex in a very good way mu neex ku nekk dem ardo ku nekk daanu nak jigen ñi di fexé ngañ di sangu nañ fexe ngañ di sangu ba nuuru ñu def ba mu dëgër def ba mu bum def ba mu bundox pataas feem gi foofu la ku ko defut man ma ne du feem suñ communiqué ñuy compromais foog ñu compromise mooy fi ma wax ci gannaaw am na fuy daaneel sa waay foo xam ne yow foofu du la daaneel foog nga xam ko nga pare pour dem fa pour daaneel ko rawatina ñun góor ñi neñ di compromise xam ne ñun ñoo gën a gaaw a daanu lu ci bari ñu xam suñ ji sport si jabar yi ak am cepe yi ñoom ñu njëkk a xam seen boppa xamal ñu ko ñuy bàyyi xel di làmbaatu ñu xam ne fii moo ko dee neex it doesn't even start with soo duggee ci biir déedéet it can start with mere playing am na num demee sooy foyee sa cuusi jabar wala na bu jigéen daf ko irritate bàyyil cuus bi bàyyil ween bi am na num demee foonante daf ko irritate rawatina nag if you have bad odor rawatina su fekkee ne sa gémmiñ ji dafa am xet rawatina su dee da ngaa tox cigarette di naan sàngara wala di jogo jëfoo other forms of drugs nañ di bàyyi xel foofu bu baax am na num demee daf ko irritate o mu toon ko off am na num demee ngene dang ko baaraam you might be hurting her am na fooy dugal sa baaraam bi rawatina soo amee ay wey wey yooyu si boppam dañ ko war di dog bala nga koo dugal si sa am am am cëri jabar because it comes back to the same thing infection si ñu wax su suñuy wey nañ ko di dog na gàtta ndax soo ko dugalee foofu mun na moo xoos fu war ta xoos you can give her internal bleeding wala gaañ ko ci biir cëram loo xam ne teyiwu ko ngay baaraam mu neex rek ngay gën bus am na nu moo demee biir foofu dafa tenda mun nga koo gaañ mun nga koo rodda mun nga koo dog so nañ leen di bàyyi xel yi yëpp su ñoo am sexe is very important it can be a turn off am na nu mu demee nag yaa ngee def yenn yi mu ngi neex du ko bàyyi xel mu am a sweet sour feeling mu ngee lakka tuuti boobu cafka la yaa ngi ko def mu ngi koo lakka tuuti su demee ba pare si laa xam ne kii kat ndeke teppi na ma wala kii kat ndeke gaañ na ma wala kii kat ndeke rocci na ma we need to pay attention to these things people dafa am solo bu baax a baax a baax ñuy bàyyi xel yi nu mel suñ nekkee ci suñ néegi sëy yi dafa am solo bu baax ñuy bàyyi xel suñ nekkee ci suñ néegi sëy yi yii nu mel because suñ ko defutee it can end up hurting us mun na moo gaañ jigéen ji mu nekk turn si moom soo ko moccal na nekk loo xam ne like na ko it has to be consensual ak lu ngañ kabar kabar ak loo yàkkamti yàkkamti yàkkamti sometimes buñ gaaw a dugga because su fekkee jigéen ji wow su fekkee tooyut am na ñoo xam ne duñ de gaaw a tooñ am na ñoo xam ne soo leen jegeñee rek ñu tooy am na ñoo xam ne soo leen xoolee rek ñu tooy they have to be in the mood su boromam tooyut nga ñëw wede danga koo mocca wede danga koo dugal ngañ bu si munti nekk rek mun nam ko gaañ wala mu tonof ko so ñun góor ñi nañ leen jéem a xam suñu jigéen xam lan moo leen a yóbbu ardo lan moo leen a daaneel lan mooy tax ñu dégg se bum nañ ko di bàyyi xel kon ñu ngi leen ay bëggee di leen wax ne sentiment show ngi na déglu jógee fii ci Gambian Talent TV Pa Ousmane Diouf ak Sima Haydara nekkal leen ci gannaaw microphone bi ñu ngi leen ay bëggee yéen ñuy déglu di seetaan ci YouTube bi yen ñuy déglu di seetaan ci Facebook bi ak fu ci waaye nekk ci ñeneenti ko ñu àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu ngi leen ay bëggee ci seen deglu bu baax a baax a baax Fatou Sonko mu ne Sima is cool lady you guys are educated educated educating us mashallah Aliou Diallo mu ne very interesting Fatou Sonko ko mu ne yes men come so easy and after that they don't mind anymore mu ne góor ñi kat yàkkamti nañ pour daanu dañuy gaaw a daanu bu baax a baax benn ñaar rek ñu ne xelas ci suuf te du ñuy keyaa after that góor ñi nañ leen bëgg di keyaa suñuy def ak suñ jigéen ñi kon duñ def dara lu ñu waxoon nañ leen ci gannaaw ne am am nañ imaam benn ci reason si sima am advance anga xam ne moom lañ jot wax nañ ne góor ñu bari the first reason bu ñuy joxe su fekkee ne it's not even our genuine reason mooy ne um, islam moo ko tere duñ la wax fan ci islam islam moo ko tere gémmiñ bu ma tuddee yàlla duma ko moccee private parts gémmiñ gu ma jàngee alxuraan duma ko moccee private parts si ma wax na ko nag weddi fen ne jigéen ñi ñoo daaxa julli ñoo daaxa tudda yàlla ñu bari si ñoom te so nyu ñu moccal la ñu moccal la gémmiñ bu ma duma ko defen bobu mo am ñum xawa nyu jaaxal ñu ne benen bi moy lan jigen ñi du ñuy toppatoo seen bopa they don't clean after themselves gur ñu bari lol lañ advance as a reason ba tax duñ moccal seeni jabar wala seeni partner female partners benen bi ñu ne am chemical suñu jëfandé ko diko def ci seen private party mooy tax duñ màccal seeni jigéen seeni jigéen of course am na other reasons first reason bi nag biñ wax mooy ne am uh, islam dafa am lum ci wax uh, yàlla def na nag this topic is a little sensitive niñ ko waxee suñ mbokk yi ñu bari duñ ci nangoo wax jokk nañ ay ustaas ustaas yu bari suñ waaree suñ dégloo wala imaam yi ñu ne la islam is a complete way of life it's a full package islam bàyyiwu dara islam waxtaanee na lu ne waaye nañ leen bàyyi di tànna li ñoo wax ak liñ dut wax there is no doubt agri ngeen ak man ñu bari ñuy déglu fii agri nañ dina am ñoo xam ne nag duñ ko def duñ moccal kenn te bëgguñ ku leen moccal am na ñu bari ñoo xam ne duñ moccal kenn te bëgguñ ku leen moccal waaye am na ñu bari ñoo xam ne it is happening rawatina ñu nekk ci bitim réew gi naaw ñu ne daf ñu affect bot suñ ustaas yi nanguñ see wax contact nañ ay ustaas yu bari nag ustaas yuñ contact ñu bari nangu ñoo wax bot jot nañ Imam sise moom mi nga xam ne mu nga ca Gambia pour waxtaan ak moom yéen a déglu di seetaan Sen Minutes soo jógee fii ci Gambian Talents TV Pa Ousman Joof ak Sima Haydara ñoo leen nekkal ci gannaaw microphone bi di show is live next week dinañ ibbi line si pour ngeen dugga wax seeni xalaat ba jamono ji képp kuy déglu bugg a sànni sa ñaari sen si mun nga coo dugal sa ñaari koppar yi rek mun nga ñu ko sen képp ku bugg a sponsor show bi mun ngeen ñoo jokko ci plus 1 404 593 6215 plus 1 404 593 6215 ku bugg a join Sen Minutes WhatsApp group bi bugg a jot audio yi tamit mun nga ko faa def xam nañ ne yéen ak ñoo déglu yéen ñoo seetaan caga ju ndaw jeeg caga ju mag ji yëpp yéen ak ñoo déglu maire yeeg paa yeeg waxambaane yi xam nañ ne yéen ak ñoo déglu waaw imaam yeeg nayib yi pasto yi xam nañ ne ñu bari si yéen yéen ak ñoo déglu am dinañ ci waxtaan ak duñ ci waxtaan kon jokk woon nañ ki nga xam ne mooy imaam Cissé ni ma leen ko waxee moom mi nga xam ne kat imam bu mag la nekkoon fii ci Detroit mu dellu Gambie ci jamono ji kon duñ def dara lu ñu déglu Imam Ceesay waxtaan naak ñun ci kàllaama Mandinka waaye dinaa làppatoo Imam Ceesay ak kàddu yi nga xam ne moom la jot a wax kon ñu déglu Imam Ceesay ñu dellu si waat rek ak yéen suñ paree li nga xam ne moom la islam wax am islaam dafa daganal góor sa jabar moccal la wala daganalut ko kon nañ deglu Imam Ceesay doon go alhamdulillah rabbil alamin naata kana jaabiroolu ñinu kana walali jaabi nde folooɗo men na wala mo ñinin kaaro men naata muso anin cewo min naftañola aɗum futuute tema e keelaŋa e boolu portale ñooye e ka eh, bi mooy jigéen ñuy nataal seeni cër di ko nga ma boobu mooy laajte bu njëkk boo xam ne laaj nañ ko ko. nga sali ñu ngi sant yàlla di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. ma satalla ay men fo alquran o kono. lii yàlla wax ci alquran. doomi Adama. muuminoo cewoye. muumin bu góor. mais yaalon ko alaata ala taala la. koo xam ne gëm na yàlla. ay ashhadu allah ilaha illallah kumoo fo. te dafa wax ashhadu an la ilaha illallah. kowalemo ala diinoti ne loolu mooy diineem aduŋa ñiŋ misilimi ye a tombong bim tànnee ne mu feŋoti bim tànnee ala taala feŋo ferendiŋ kon dinañ kaa jaabi sariyaw la leeral lépp lu ñooy wax ci nkaa jaabi moolu le nit ñi lañ koy waxal ko ikata misilimoolu ti nit ñi nga xam ne ikata muminoolu ti ñooy jullit te ñooy mumin eh, baawo moolu kan taafo ko balaa nit ne imaamu kañim meŋ imaam li moo wax ni mooy xew fu nekk ci jamono kadiyamu moolu be kadiyamu menni mhm. wala le mu misili moolu ti ani mu'minolu mu ne ñun nekkuñ di waxal ñata man satallala sotola ñi ñuy waxal mooy mu'mini ak ñi nga xam ne gëm nañ alquran ak ak hadis yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamandi ila alabatu ñaato mu ne ñooñu ñi nga xam ne gëm nañ diine islam ñooñu lañ ko waxal la karola menni yaalon ko kon li yàlla wax ci nit ñi nga xam ne dañooy nataal seen cër di ko yónnee wante mbe foloo la moolu la karoo la dina njëkkee ci ay nit ñi nga xam ne seeyuñ moolu mel ni yaalon ko imam futu ñooye ñoo xam ne seeyuñ haramu tale woo dafa haram ñu dam ka ñoo la ngay booje pour ñuy gisante suñuy kee ala taala ay même fa suuratu nuuru kono lu yàlla wax ci suuratu comme liñ leen wax rek ci commencement bi imam Cissé dafa am ay topic yiñ ko laaj yoo xam ne dafa affect société bi benn si yooyu mooy ñi nga xam ne seeyuñ di yónnee wante seen cër yi seen private parts si lan la islaam wax ci loolu ñi nga xam ne dañu dañ bugg a sëy di yónnee wante ay private part ci internet bi either video call or am am ñu ko yónnee wante am pictures loolu laa njëkk tontu nii mu ne dafa xaraam ci li yàlla wax ci suulatul nuur ñoo xam ne sëyuñ waruñoo gisante seeni cër man toolu qul lil muminina yaxdu absaarahum ñiŋ fo moo dankaneya ntuŋ kewolu ye i i ñaatoolu yakdu absarahum i si ñaalu muta mu ne képp koo xam ne seyuñ nañ leen di jàpp suñ bët di gis wala ke kisi-kisi wala di gestu loo xam ne dafa anita muso am eh, eh, cewna eh, yaalon ko iman futuwaye yow jigéen ji nga góor gi nga xam ne seyuloo moom warul pour kooku gis sa cër warul pour kooku di gis sa cër ndax sa yaram si boppam xalaamut sa yaram si boppam xalaalut pour góor googu gis ko sa cër kon moo tax yàlla jël foofu setal ko set men ye a ko i man futuu ñoo ye loolu mooy ci ñi nga xam ne seyuñ mais ye a lon ko a haramuta mhm. a si kenoo ka portala woli ci ñoo ye kañola ali haaloje kañolo ñaaje ibe ñamen baawo ibe jamfarin ñoola ah, pour deflo xam ne da ngeen wanante ni moo lafta ka muso futu ah, di wane cër bo xamne ni futu tata fo futu sito a kankulata soobeyata suñ demee janninkolu be kela itolumaani ñoo ñanta ño jelale ah, pour wax ne ko ni nga tara ka faani kuliŋole dun cewo bukala ali haaloo je dem nañ be bugga sey wala mo bin ka fo men na ko ala structure war nañu gisee su ngeen demee ba bugg a sëy ba pare pour sëy war nañoo mun a gisee mu ne su ko defee mooy li ñuy wax ci jamono ji li ñoo wax structure pour nga gis structure ndaw so woto anin isi silo diile dam ye tara sirin dulaato damiyaalon ko e famille la dinkiraale mu ñu gisee tamit foo xam ne place yi famille bi la déglu leen wax ji de ute naa tey de ndax xale jigéen ñi ñu ngee dog ay plane ticket di dem dëkkatu dëkka pour dem Thiès yi mu ne ci li islam wax war nañoo mun a gisee waaye si place boo xam ne ci place yi famille la ñu ngi dem nag di jël ay hôtel di ànd dem vacation Dubai ànd dem China ak ci Taiwan ak ci place yu baax baax yoo xam ne yëpp fa la ñuy dem di dajee mu ne fi ñu war a dajee jëkkër jabar wala ñoo xam ne dañ buggante mooy ci place boo xam ne ñi ko tànna mooy famille bi isaaje mu soose fen ɗum me yaalon ko abe ala jaato yitandinoola cewola to jikkalañinto ko ay faano wura mu ne nga ko yaara fan ñim musoñin lafita famille bi la fa lañ war a tesee nga xam ne jigéen ji dina war a mun a wan ciram góor gi te fekka simiwut ay yire wala bu ñinti ko yaafutu aɓe fuɗiren faano koto ni ganaate wura lumen aye fernudu menniyalon isaala ali haalo fintindino yaaji ali haala ñaama imallafi menna mu ne li waral li ñoo bañ foofu mooy pour nga gis jigéen ji bés boo xam ne yaa euh, soxlawuloo ko euh, wala mu ngi sol loo xam ne yow nekkul ne loolu nga bëggoon pour góor ak jigéen ji daal ñoom ñëpp si nekk tànn sa morom euh, jigéen ji tànn góor gi góor jigéen ji nga xam ne loo xam ne am gisee ngeen daal waaye du loo xam ne pour nga sa cër yëpp jigéen ji gis ko wala góor ji gis ko mu ne loolu mooy baat bi si ñi nga xam ne seyuñ waaye bu ko defee sey loolu la islam wax ci loolu su demee nag ba gis sa plan te sa sa cër te fekk seyu leen mu ne loolu mooy am euh, tontom foofu ci ñoo xam ne dañ bëgg a gisante te euh, seyuñ ah kon dégg ngeen li imam Ceesay wax foofu mooy ne kat pour wane cër foofu noonu ah, sa private part nga wan ko sa na koo xam ne séyuloo ak moom mu ne foofu kat su fekkee ne séyu leen private part àggut foofu noonu warulooy wan sa private part kenn kenn kenn kenn kenn koo xam ne séyuloo ak moom the only person ku war a gis sa private part mooy sa jëkkër góor ak jigéen ñoo xam ne séyuñ liñ war a wane wala foo xam ne war nañ ko wane mooy structure góor gi gis jigéen ji jigéen ji gis góor gi si balaa ñoo sey nga xam ne kat ñoom ñaar suñ gisee kenn du xool sa morom ne ah man kat lii du lu ma foogoon ci moom wala fooguma woon ne nii la mel wala nele la mel loolu mooy li nga xam ne Imam Cissé jot nam ko wax foofu noonu ci ñi nga xam ne ah, ñooy seetaan ci jamono ji ci ñii laajte ndax góor ak jigéen war nañoo gis seen private part wala waruñoo gis private part leneen lan la Imam Cissé wax nañ ko déglu ci number two audio bi ci li nga xam ne. loolu eh, tontu. ngana ñinin kaari do fanan na karoo la mu ne ñu dem ci ñaare li laajte bi ko aka ke musonin cewotema ci góor ak jigéen jannin ibe laañoya commence la si balaño sey mo kaka fuño kan larango to pour am sexe janni be wote la e kan ni diya menke ida malu tema balaño sey yo fi neex yi ñoo def seen eh, digënté ñoo ñaar enjoyment moy tay li ñoo wax oyo enjoyment dahamta walla moye li ñoo oya daal enjoyment walla moom seet boppam i buka moy mu ne bari wala mu ka ñoo niyo diyandi moye pour anin ka ñoo seewandi wala a begalante bala ngeen a commencé sey muy am sexe yo ñininkaro mu ñineti mu ne laajte bi mooy lii ne me yaalon ko a dandita diinoo kono ban walla fo aman dandi diinoo kono mooy ndax loolu lu ànd ak diine la walla ànduta diine ci diggante ko nkaatu sharia o aka men kiiti waato waati ñu dem ci sariya ko halala li mooy a waxtu mu nekk mooy ko haramude mo sariya du koy waxtaan sariya ama ko dandi wala du koy taxawal eh, ngana wadin kira ngana jaabiro ke ji foofu ñu ñëw àtte foofu fo kewo nin ala muso ndax jëkkër ak jabar war na ñoo mun a defalante loolu kamen na loolu naalu teema ci li d'accord am ci diggante góor ak jigéen mooy ne mais yaalon ko aman haramu mooy ne dara la loo xam ne haramu mais yaalon ko aman haramu futu ñoomaalu tema ah wax daangee ñëw de mu ne fenne mu meyalon ko aman haram futu teema pour bégalante diggante góor ak jigéen dara la loo xam ne haraamut emut ci bégal gi de ci lim wax ci gannaaw mooy suñ topic bi pour ndax jigéen góor war naa moccal jabaram waaye nag nañ seet lum ci teg nañ déglu li nga xam ne moom la ci imaam yokka bari mu ne haraamul ye masilandiri dinkira jee waaye am na foo xam ne masilandi dinkira mu ñenti wala mu ñinti ko nin musoobe cew la e, ceya suusuu la su jigéen di moccal maño si boono amaari la wo kono jëkkëram aɗum ni maño mun na faa génna muy ne spam jigéen suy moccal góoram spam mun na faa feeñ wala génn ko man bondita asikelo anin fen si finti me yalon ko asikelo mu mune pour jigen moccal jikeram spa mun na génna wala ndox li ñuy wax manio su manio bobu génnee mun na andak febar nkantu manio la bondi dinkara man la fango atele wota aya halala yandi mune fuy manio di genné yalla si bopam moko daganal moko halalal te liggéey bu régi la yàlla def ci cëri góor wala place boo xam ne fa la manio di génnee yàlla liggéey bu rëy la fa def sintoo musoo bala jaatoo bala kon anin cewo bala bala manio buy génn ci cëri jigéen wala ci cëri góor ko cewo bala maakuliyaa men ka la dara la loo xam ne lu ah, ka tara cewo la yenn feebar xam ne futuuta wala kaa bondi bala jaatoo ko ah, nekk ci jigéen ni nga nin futuwo ke su fekkee ne mu ngi sëy a meeta isaje aka kono kuraŋo diya la kono dimi jawo aniŋ kene dimi jawo ka wo le ka maari la kon tumoɗo niŋa waato neta kata saŋ mun na moo am biir bu mettit su fekkee ne mu ngee jëfandikoo yenn yi wala góor gi tamit suy jëfandikoo yenn yi manio boobu di génn mun naa ànd ay feebar isaji a suufoolu faŋolu commencé ta ka problème soto a siŋolu si problème soto mun naa commencé di am ay feebar kewolin muso tema moo tax yàlla mala be jeena yaalon ko londi nafaama baale mu ci diggante góor ak jigéen atale yaalon ala aadama diŋolu tema yàlla moo xam njëriñ bu mag bi nekk ci diggante doomi aadama tema kon ñin kam ma pour sey ci diggante góor ak jigéen mu def ko ci seen diggante li moo wax ci gàttal mooy ne yàlla dafa def liggéey bu mag ci diggante góor ak jigéen te ci suñ private part muy suñ cër yi te liggéey boobu noonu am na loo xam ne jigéen su toogee lu yàgg seyut ak góor mun naa commencé di am biir bu métti ak yeneen feebar yoo xam ne dina ko jànkuwanteel góor yi tamit su toogee engrais bi bari sa biir yaram bi spam bi bari sa biir yaram bi génnut mun na laa indil ay problème yoo xam ne macha allah at the end of the day mun na laa indil ay tolof tolof mu ne kon loolu moo tax yàlla indi ah, sey ci diggante góor ak jigéen. imaam Cissé moo ko wax ne loolu la yàlla wax du man maa ko wax imaam mooy wax nañ déglu ay taala la siloo kan anin kiilañimma ala sunnoo kan ñu teg ko ci sunna iko felle mu ne yaalon ko aman haramu farata dara loo xam ne haramu bare kon waaye am na yaa ko mel na foo xam ne man yela booti ñenn ñoo xam ne sib nañ ko cogola karola ade mu foo asi sinan maniyo la wo maniyo men kabo kura si sitara no kono mu ne am na ñoo xam ne nañ ko sib nañ ko bañ nañ ko bañuñ ko ngir dara ludut febar feebar boo xam ne war naa mun a ci diggante gor gogu wala jigéen ji ci ay ciram su fekkee ne mu ngi dem bay génnee spam wala ndox ni nga tara wobinaa ke la toorooti su fekkee ne dam loolu dafa nek tolof tolof wala lorange si seen digeunte kon ma haram ko daaxa waaye haram maluñ ko mu ne su fekkee ne jëkkër jabar ku si moccal sa morom am na yenn borom xam-xam yoo xam ne dañ ko dàqa waaye xaraamaluñ ko su fekkee ne diggante jëkkër ak jabar suñ sëyee ñoom ñaar seen diggante am tolof tolof bu bari mun na faa am dina leen indil feebar wala yeneen façon ngi su boobaa islam daf ko daax naka ñooñu bu yenn borom xam-xam yi dañ ko daaxa waaye xaraamaluñ ko kon dégg nañ wax ji foofu yenn borom xam-xam dañ ko dàqa waaye xaraamaluñ ko yaa kon ne bari ma xaraamu nkantum nkiilañimma sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa men kaa ko nisaukum harthun lakum fa atu anna shitum am na aya alquran bu wàcca mooy aya bim jos jànga nii allah futu musoolu seen jabar yi ngeen takk muuti ali sine i futuwola karola ali haala wo ali haala mu ne kon ligaay di wax rek ne seen jigéen yi seen garab gu taxaw la wala eeg leen si dem ñoom wala dem leen si ñoom alxaala bu leen neex alxaaloo alxaala mooy ne si fànna bu leen neexee seen jabar yi seen bos lañ dem leen si ñoom ci fànna bu leen neexee e kawo ayo ka men fo mu ne li aaya boobu di wax mooy laatoo ban ali siitoo ban da ngeen tëdda walla da ngeen toog ali jonkototoo da ngeen jonko ali haala wa ali haala bépp ni saakeenoo baraasi ke mu sooda ñaatoo toti ah mu ne waaw nag foofu dañ ne alxaaloo alxaala mooy fànna bu leen neex waaye na nekk as long as si kaname jigéen ji la oustaz Sima ko si gannaaw nag mu gannaaw gi rek lañ bañ pour ngeen dem si waaye nu ngeen ci duggee rek baax na as long as si kanami jigéen ji la alake musola ko mooti bu nekk ci gannaaw dana yaalon ko cene kono taa ka finti jee mooy fi nga xam ne fala dee demee kama foofu dafa haram ñin kira doolu ka koolu sujindi jeele la kaa fo ko bari alqur'ano fawa yaa fole musoolu mu cewol la kunkoo ti moo men diyaate i ñanta kawo i bala jaatoo bala mu ne dégg ngeen wax ne alqur'an mu ne jigéen ñi seeni jigéen seeni tool lañ mu ne seeni jigéen seeni tool lañ dem leen si ñoom nim leen neexee am na ñoo xam ne fu ñoo sukkandekoo ci aaye lii moy ne liñ wax ne bul dem ci gannaawam mooy fi dee demee kama foofu rek lañ la aaye pour bul ci dem mu ne am na ñoo xam ne foofu la ñoo sukkandekoo am na ñoo xam ne foofu la ñoo sukkandekoo sii ma dégg na dégg de xool leen ni mu gémmiñ gi dégg na dégg imaama wax du man du man de imaam Cissé te dégg ngeen aaya alxuraan yim kóod man nag yàlla def na soriwuma ci alxuraan gi noonu pour kóod ko kóotuma alxuraan waxuma ci alxuraan ustaas sii ma dugg na ci si gannaaw xuus na si man nag duma ustaas waaye lim wax dégg ngeen imaam Cissé déggal na ko moom imam bare fennel mudin karaati mansatallahi mennuta a yefatam fansinde mu ne yàlla dafa am koo xam ne mu soomun na kunkooleti atte na ko wala mu nafa men séparé na ko e diŋolu ka soto jee kanoo ka ɗum moolu tema ka baadin yaata ka suci mansatallaa be ñin dinkaraale la mu ne kon suñ waxee loolu ñu bari dinañ ko dégg rek ne lan lañ miin si loolu lan la yàlla di wax fii seeni jabar seen tool lañ dem len si ñom num len nexé as long as dugalu loko seen gannaaw mu ne foofu liñ fa min is not the literal meaning ne jigen ñi tol lañ way tol dang fa ji so fa jiyee mu meñña meñña bobu moy nekk gantax at the end of the day muy crop si nga xam ne moom la ñoo kon literally le muy min moy si jigen ji nga dugga so fa duggé dugal fa spam spam bobu ñëw nekk doom doom jooju ñëw màgga nekk koo xam ne dafa njëriñ noonu la ko tojee noonu la ko break down moom imam Ceesay du suma kàddu de yéen a ngi dégg wax ji si soose fenneti me yaalon ko haramuta kon yoo woto ñin aayo maññin dandi ko kaafo ñaatoolu ñanta ka newum kon aya bi i kana newum boobu mu ne àggut ci faramfàcceel ndax mun nga mocca walla mun ngaa ñàkk a mocca aaya bi àggut foofu de mocca gi ci lim wax aaya bi àggut ci mocca e woton na jaabiroo mu menti wala mu ñitti ko kal ñaato suusu wala ka new sariyaŋo ma a haramundi mu ne kon suma tontu mooy pour moccal sa jabar wala ñàkk ko moccal sariya haramalut ko wala mu halalal ko wala mu ñàkk koo xaraam bari yaa kon waaye am na ñoo xam ne sit nañ ko asi kuuraŋo sambandoo nañ jee ah, ngir eh, ne su tooyee mun naa indi jàngoro mu ne islam xaraamalut ko waaye am na ñoo xam ne sib nañ ko ngir ne su foofu tooyee mun naa ànd ak jàngoro mu fenneti ni ke la nsitaanoole na doctorol ya ye visité ali haala ñaama mijaalon ko kurantina komo koolaato wallahu subhanahu wa taala allah taala atele mo ɗon naati ñinkol beela ñine mum najaabi rootije e hani sa in alibadima imam sise a mune degang en kaadugi fofu fimmu jeemoy gannaaw tolluna foo xam ne islam haramalut ko walla mu halaalal ko daganal ko kon war nañoo dem gisi suñuy docteur su fekkee ne bugga nañ koo def tiima it comes back to liñ doon wax rek cet gi fala imaam tëjee kàddoom mu ne kàddu gi li si rafet ci yàlla lu si ñaaw si moom la fi mu tëjee kàddoom mooy nañ dem ci suñ docteur yi ñu advise ñu wala boog ngeen make sure there are no health implications or health risk amut benn jafe-jafe bu ci am amut benn problème bu ci am ci seen wér bu yaram su ngeen demee ba jëfandikoo jigéen ju maccal jëkkëram wala jabar ju maccal góoram nañ dem ci docteur yi docteur yi wax ñu naka la fa am na yeneen audios nag yoo xam ne imaam wax na ci suñ topic gi tey bi mooy woon affaire yi ndax jigéen war naa maccal góoram wala warut koo maccal ndax góor war naa maccal jabaram wara warut koo maccal amaana sax góor ñu bari dañ dee wax ne jigéen ñu bari ñu ne seen góor yi bugg nañ ñu moccal leen waaye ñoom bugguñ ñu mocca leen kon fii wee are talking about ndax jigéen war naa moccal góoram ndax la góor war naa moccal jigéenam raada kon dégg ngeen imaam lim wax mu ne islaam xaraamalut ko waaye am na si këri diine yi wala ay ah, eh, scholars ñoo xam ne dañ ko sip te fuñ sukkandekoo si sip ko mooy su tooyee su private part bi tooyee mun naa ànd ak ay jàngoro boo xam ne mun na laa lor te foog naa daat same principle fa la ñu bari sukkandekoo xaraamal am cigarette walla taay wala yenn intoxicants yoo xam ne soo ko jëlee dina la tàggaleeg sax sago walla other things yoo xam ne lépp loo xam ne soo ko defee daf la tàggaleeg sa wér bu yaram rek islam am na lum ci wax kon siima wala ustaas si ma bokk kàddu gaa ngi si se wax na ma bàyyi la yow ustaas si ma ma seet fooy génn. waaw imaam wax na lu am solo lu am solo tey nit ñi jàng nañ li nga xam ne ñu bari ñu réeroon hmm. ñi nga xam ne foogoon nañ ne ñi daan mbugoo ne islaam daf ko daganalut hmm. waaye islaam dagal na la dagalal na ko waaye nag ba tey rek dafa delluwaat si suñ commencement wax bi mooy bu ñoo ñu ne mhm. na dem ci docteur nañ dem seetu docteur mhm. na nga dem sa docteur na nga seetu sa boppa jigéen dafa war a seet boppam set mhm. soo ko set wér gu yaram ak li wax moccal beeg everything soo demee ba ci gannaaw yëpp seet moo ko ëmba parce que li lu seet feebar lu ci gaaw a am yoon lu set feebar lu ci gaaw a am waala kon set am na solo dem gis sa GP am na solo mm-hmm. dem gis sa GP lu am solo la surtout ñun euh, sa house doctor mm-hmm. euh, nga dem ko ñaareel bi mooy ne mm-hmm. euh, lu si baree bari góor ñi dañu tënka tënka ci benn place mooy ñoo xool seen buga buga saa su nekk loolu lañ dee xool liñ fiil loolu lañ dee xool lu yàggala na li nga xam ne dañu si yaagaa noot yaagaa noot def na ba tukki ñëwee rek si la bari tukki Europe bi diaspora bi yàqanaa mm. xale yu jigéen ñi mm. parce que dem nañ ba euh, séyante ak seen biir soo bàyyi xel mm. dem na ba xale jigéen yu bari nga gis ku ku si nekk ak beneen euh, nationalité lim loo du bugg delluwaat si Gambien parce que lan ñooñu bañuñ pour def ko ñooñu dañoo dem ba jeex si wàll yi euh, sexe dañoo dem ba jeex soo gisee suñ mbokk yu bari Euh, waxtaan naa koo xam ne ma ne ko yow maa ngi jégalu si kaddu bi. Mhm. yow looy def ñam yi. Mhm. moom mu ne ma euh, li ma bugga si suma sex life. Mhm. Euh, ñag bi moo ma koo jox. ñag bi moo ma dee bégal. ñag bi moom moo ma dee jox li ma bugga. kon tam dañ war a bàyyi xel te wax dëgga seyoon na noboon na fi nit. waaye lim bugga si intimité am. munu ko boor gi mu doon seer mm-hmm. loolu yëpp lu ñu ko indil mooy tabu yi nga xam ne ñun mm-hmm. ñun dañ jël diine bi mm-hmm. tànna ci li ñu arrangé rek ñu roof ko ci te war nañ di jàngaat war nañ di di di def research dem si ñu jànga dem si ñi nga xam ne soo demee tay dara umpaatu nit boo ubbee sa YouTube bi wala nga ubbi sa euh, sa sa sa sa Google bi nga dem check si biir di nga gis lépp loo xam ne diine bi lu wax di ko ci lii dafa am nag diine bi dafa dem ba ci imaam Malik ak euh, euh, beneen lii bi. Mhm. so da ngaa gis imaam Malik imaam Malik imaam Muslim Bukhari ak Abu Dawud ñoom ñoom ñoom waaw. voilà ñeneen ci këri diine yi. Mhm. waaw waaye soo ko seetloo ñun. shérif bi ñun mi nga xam ne ñun ñoo dëkka si Gambie ak Sénégal. Mhm. lu ci baree bari imaam Malik. ndigalam la ñoo wéyee imam malik lam binda bindaam lañ dee doxee hmm. mooy Gambie ak Sénégal boo ko seetloo imam malik la ñoo dundee eh, lañoo lii ni waaye ba tey hmm. ñu ñëw si benn affaire boo xam ne eh, dañ ko door bi ci taay mi xale hmm. ñun du ñoo waxtaana suñ njaboot suñ njaboot yi tey ku see war a dem tey pour sëy xamulo sax eh, yow soo jàngee laalante yaa ngi ko jànga soo jàngee sexe yaa ngi ko jànga si nobu wante si mbedd Uh-huh. sexe yu gaaw soo dañu tënka si soo demee si sa far sa si mbedd bi di nga gis ngoo xam ne dañ xale yi ndaw ñuy leen a simi sa xëy na sa far simi sa droos euh, bu gaaw boobu dañ dee demee mental yi mm-hmm. mentality bi dañ la dee woon ne loo loolu ngaa foog ne loolu mooy sexe ba yeneen saay na soo demee bay dal si ki nga xam ne moom beneen façon euh, sexe la am fu mu laa jaarale si nga dee xam ne ah man de ndeke dama trompé woon ndeke dama juum lii mooy sexe lii mooy neexaayu sexe soo ñun dañu tënka dañu tënka si tënka boo xam ne du ñoo waxtaanal du ñoo euh, school bi sax lu ñoo wax ne naka la ko waxati FLI FLI FLI FLI suñ laa jàngal duñ la daan jàngal li nga xam ne moom moomut maa ngi fàttaliku ustaas euh, bi ma doon jàngal euh, maa ngi koy nuyu ustaas bi mu doon waare bu moo waare mu ngi explain jigéen ak góor suñ séexee lan mooy tax ba jigéen góor boobu noonu war naa sangu janaaba mu ngi bëgg a expliquer góor gi euh, bopp boppi ciram bi su fa su fa ndox bi génnee rek mm. waaye moom dafa dem direct to the point mu mm. wax ko those days maa laa wax ne we take it as insult ñu ngi ko jëlee as lu rëy ñu ngi ko jëlee as ustaas bi maa ngi remember yaa ustaas bi dafa yaaxu dafa def nii waaye li mu doon wax jàngale la sooy jàngal nit da ngay jël affaire bi ne ko fii la fu metti nga ko won soko wonute fu metti mhm. nga ñu ne ñëmé di masla round to di dem round si topic bo xamné do dem si diga bi nga wax ko té mëna pa Ousmane té lu ñoo wax ni dina dina am ñoo xamné dinañ ko jëlé né rancang yi mhm. kay yow mi nga xamné euh rancang bi pa Ousmane mu ngi soxnam man ma ngi suma borom kër mhm. way jangal mo ñu taxé jog yété mo ñu taxé jog man suma noppé pa Ousmane noppé kan moy wax kan moy wax Mhm. lii yëpp jàngal la. an an an an sima fi nga wax noonu sax euh, loolu la wax naa la ne la jokk nañ ay imaam depuis biñ ko agree last week Friday ne dañ ko wax ba tey jokk na ay imaam yu bari. waaw and they are just not willing to talk about it. dégg nga wuñ pour waxtaan si. and they are the same imams that would tell you ne la Islam is a complete way of life. and here is something loo xam ne mu ngi affect askan bi yëpp. askan bi yëpp. either we know it or not. you will have some that don't do it but generation B, ño xamne duñ def yoyu waxuma la moccal rek de pour nga moccal mama mo la but people do a lot of things from barambi to 69 there are so many things dégg nga nim ko waxe wéra da nga jutu wéra da nga dem ci kawam wéra da ngeen wengalu ñu bari dañ foog ne sexe da nga tedd rek sa jabar tedd rek nga éeg si kawam even jigéen ñu éeg ci kaw góor sax am na ñoo xam ne dañ koo xaraamal am na ñoo xam ne dañ hmm. koo xaraamal that the only way to have sex is jigéen tëdda góor egg ci koom should that be the case it's a very sensitive topic like you said soo ko waxutee hmm. waxuma ko ku ko wax and by the time we finish people start going to our families people start going to our loved ones and talk to them possibly people start calling us names labeling us te ñu ngi ñoo déglu de dafa ci biir kër te kon suñ déggee aaya bu imaam wax dafa ne dañ war a ci biir kër gi it may not be the right word to use waaye ci suñ taam du lu bon here nag ñun suñ soo dañ koo def we are not talking to unmarried people ku ko si jël apply ko sa biir kër wala sa relationship show be on you waaye ñun suñ jubluwaay mooy ñi nga xam dañ sëy ñi nga xam dañ sëy néegi sëy yi lañ defar te si ma leena ko wax I've been saying this bi maa def sentiments are at mag jëri we've always said it nañ fexe try as couples ñuy déglu sentiments ñu ngi leen a ñaax déglu sentiments if this is your first time listening to you on YouTube or following us bosal that subscription button that red button pour nga subscribe di ko toppa sooy bi mooy sa first time Gambian Talents TV nga ñoo déglu on WhatsApp demal YouTube nga click on Gambian Talent TV su yang yaa set anti Facebook bi demal Gambian Talent TV nga jàkkaarloog Haidara Karara nga jàkkaarloog Pa Ousmane ñu waxtaan ak yéen duñ MC si waxtaan ak rek dañ leen indil li ngeen dega. a dégga ma si ma wax suñ xam-xam rek la ñoo jëm foo wala common sense or what we know our experience waaye dañ leen a indil ay experts in different areas based on topics yu ñoo waxtaanee pour ñu waxtaan si dina am topics yoo xam ne dinañ leen indil ay docteur pour ñu waxtaan si from the health implications and risk and health concern dina am topics yoo xam ne dinañ leen indil am different people experts in different areas pour ñu waxtaan si kon dafa am solo dafa am solo if this is your first time subscribe ñu leena ñaax ngeen déglu ko together as couple jëkkër ak jabar partners Sima wax na ko fi you have some people that will tell you Gori Gambian doyna na li saf ku ko ñama ko xam de because dañ ñuko ko jign always ne ñun gori gambian ni amuñ fem motax man mané ne Gori Gambian bu jongé man Pa Ousmane nga pirate xana bobu bu ndox patas na nañ di jonge nañ len di def bem bax nañ lose nop let's know what our partners want so so toge yow kenn nga setan show bi yow nga jange si and it has happened si my heart people ño xamne ne eventually dañ mané ndax mën na la jox suma nom bi in the past suma nom bi góor gi nga ko wax ak mom encourage ko because women listen to the show a lot more than men in the past and those women actually learn things that they want to apply waaye su dee yow na yaa ko xam nga ñew maybe yak sa jikar yena ngi mere wante won wala yak sa jabar yena ngi avoidante nga deglu sentiments am one or two things yu siima wax wala lu Pa Ousmane wax nga bëgg apply lulu nga ñew because sa goor gi all along mu ngi xam ben mbir wala sa jigen ji mu ngi xam one thing wala yena ngi am that bad blood or negative energy all along betax xamut why you can always start a new chapter in your relationship mbugel dañ koy suxat te dañ ko war di suuxat waxtu bu nekk kon always try leen nañ try di déglu sentiments together ñu nag suñ partners dinañu educate su leen neexee na nekk seen midnight show wala ngeen xaar ba xale yi tëddi nelaw ngeen door a jóg ngeen xaar ba suuf sedda ngeen door a jóg déglu ko wala ngeen dugg seen cabinet déglu ko oo seetaan ko anywhere fu ngeen koo dégloo nga xam ne xale yi duñ ko dégga we are not advising you pour ngeen toog di ko déglu ci kanami xale yi The show is not for kids. Viewer discretion is advice. It's not for kids. It's for mature people. It's for married people. kon lu am solo la pour ñuy déglu sentiments together as a couple suñ can create or am the actual impact because yow kena soko ko déglu sa am am partner dégluwut ko impact bi moo create du am solo nono. am na for xam ne wax nañ fa laal fa góor gi laal fa jigéen ji su ngeen ko deglo yen ñaar di ngeen ci jàngee together and you can make a difference soo ko dégloo seen ko sa su dee nekku leen together am na ñoo xam ne dañ daan toog siima jigéen ji koor ji kër ji ah bé sentiment sa ngee door si de nañ login ñoom ñaar ñu dégloo door instead of ñuy comment si show bi sax directly online yéen a ngi keep each other company at the time ñu ngee teg sante si suuf bilaay Pa Ousmane du nit siima mii dina rey nit kii lele yéen a ngi commentaale yéen a ngi seet show bi but yéen a ngi seenante text messages wala di bàyyilante voice message based on li ngeen nekk di seetaan loolu rek dafa dundal seen xol here you are engaging each other for productive two hours boo xam ne yéen a ngi dungal seen relationship at the time góor gi bari na góor gu fi déglu yu bari tey koo xam ne mu ngi gomoon ci biir xelam ne waaw jigéen warta mu cal jëkkëram pléyal ko soo bi mu déglu liñ ci jot a wax déglu ba dégg fu imaam di waxee mu namoo tax mu change perception am yow jigéen ji defal loolu yow góor gi ko déglu sa jabar dégluwut ko seen ko show bi mu déglu lu ñu wax si cleanliness am na nu mu demee mais bi duy raxas ndaw si mu set wala mais bi mu ko bàyyi mu mel ni toori salade buñ paase su dégloo li sii ma wax ci yëfi tooli salade bi ak di war suñuy cër wat suñuy cër dina tax mu wecci ba tax ëllëg mu wat ko wala mu bàyyi di sol yu taayit yoo xam ne dafaa tax mu ñaqa wala mu gën a lu si personal hygiene am kon si ma waxtu baa ngee jàm jàmbu si lu def ci nag li xejut ci cin bi ma read some of the comments yoo xam ne ñu ngi ñëw foofu noonu su ko defee ñu tàggatoo ñu ngi bëggee képp ku ñuy déglu di ñu seetaan ah, faatu Sonko mu ne Pa Ousmane bàyyi ma waay Aysatu Thiam mu ne LOL ci YouTube bi Souleymane Bay mu ne Pa Ousmane good job Aysatu Ba mu ne very interesting topic good job Sima and Pa Ous Fatou Sonko mu ne Sima is a cool lady you guys are educating us mashallah um, Aliou Diallo mu ne very interesting Fatou Sonko mu ne yeah men come so easy and early that they don't uh, care anymore. Uh, Mune, we all need to know this sensitive part. Uh, exactly, it's not haram between married couple. John Johnson, Mune, men get to go down and please the ladies. They love that thing have to test this source mu ne dañ war test source bi ah, moom loolu la wax foofu noonu ca Facebook ñi nga xam ne ñooy seetaan mari ñen nañu seen comments yi Buuba Sonko mu am thinking of the local stimulants for please your you talk uh, uh, for pleasure you talked about LOL skin um, uh, allergies ah, mu ne it has to be agreed upon or it's abuse ah, Ngulu gal. mu communication in marriage is the key to a healthy uh, marriage and it helps you to know your partner very well Usman uh, Lai mu ngi fufu. foofu ngulu ne very interesting and true talk Karamo Jawara mu ne very interesting na show Ousmane Laye mu ne baaraam tamit pa aus axankay baaraam yi daf ci am solo soo ko weddee laajal jigéen ñi am na ñoo xam ne baaraam rek a leen a daaneel Zion Fearless mu ne eating pussy is also good feeling for your wife ah, mu ne am na jigéen ñoo xam ne lu lañ bëgg faatu Camara mu ne romance Amadou sabale mu ne sorry but you have to stop the audio so that you will not miss uh, some words so beneen yoon ne incha allah dinaa xel Munepa, you are doing great job with Imam Sise to make us know this. Amadou Sabale Mune, thanks. Good job, Kopulsane Mune. I heard this from Bunjang uh, too about the way he said it through Imam Sise. Yeah, Mune Imam Sise wax deug la mom deg na Bunjeng khutba Ngulu gal ñewat mune the Gambian society the word sex our parents don't talk about it. They will just tell you don't do it that's all dañ laa wax ne bul ko def sadi xulaay dugga si na mu ne cey sentiments dellu si waat nañ ab caga bu ndaw la moom rek képp ku ñuy déglu di ñu seetaan caga ñu ndaw jeeg caga ju mag jeeg caga ju digg doom jépp ñu ngi leen ay nuyu ak ñoo xam ne duñ caga tamit wala ñuy caga cagalu yëpp ñu ngi leen ay nuyu sentiment show la fii la ñuy waxtaanee li ne coppet ci kaw lal bi ak ci cabinet yeeg saal yi ibil nañ leen ko si ma kon ma bàyyi la yow it rek nga dugga tàggatoo ndax yëf yaa ngi ñuy jàmb si caga bu mag bi Billy Juuf dugga si na léegi nag mooy Chief Caga kon ñu continuer rek ma bàyyi la si ma dégg nga li ñoo ñu jot a wax ci comments yi. waaw Ousmane di gërëm gars yi parce que bàyyi sa soxla di déglu euh, loolu dafa wane sa cofeel si euh, si ñoon ba pare ñaareel bi di wax rek ne saa su ne rek euh, di ñaax jigéen yi mm. di ñaax jigéen yi ñuy dem ci docteur di ñaax jigéen yi ñuy fexe di won seen liñ bëgg ci seen mm. euh, sex life ñuy ko woon seen jabar yi pare góor tam du góor du rëy mm-hmm. góor du naxari deret noon naxari naxari deret soo eegee si ki nga xam ne dafaa simeeku taati neen nga simeeku taati neen gis sa cër yi lépp lu si sa cër bi gis na ko noon naxari naxari naxari deret boo eegee si bunti kër gi sànni ko bu fekkee si bunti diggi état bi yaa ngi naxari deret waaye cabinet gi war ngaa mun a sànni naxari deret ngeen bégalante maa ngi wax ne tam saa su ne rek nañ leen bàyyi di jël diine bi di ko solal mbuba boo xam ne nekku fa mm. parce que yàlla dafa ko nga xamne mu ngi begal jabaram ñi nga ñi time mi nga tok nonu ngay am sex ak sa jabar malaika yi baraja yu la bindal baraja bu la yalla di bindal lolu reyna torop dafa melni da nga xare ji won kon nit ñi nañ fexé di begal seen soxna soxna nañ begal seen jabare li jabar am di begal di ci am yalla non la jëkkër am di begal di ci am yalla di nuyu ñepp di ziar ñepp di balu ñepp aha di ñaanal ñepp jamm di nuyu suma jëkkër ji Mohamed Lamine Fall nga yenn nga fi yàgga lol te wér bàyyi Mariama fi nga jëm fi nga ne xamna ci li nga ne wang lay ñaanal lepp liñ ci bugga rek yalla defalal lako kon dila wax ne ba tey rek ya nek suma xol bi pa Ousmane jërëjëf. Ah, kon dégg ngeen ko sentiment su la fi ci Gambian Talents TV next week fan la ñu génn. next week ñu gay euh, digon nañ leen ne dinañ ñoo waxtaan ci mucca gi wax nañ ci mucca waxaat ci mucca waxaat ci mucca ni ñi na ni ñi wax lan lañ bëgg ñu wax ak daanu gi kon ñuy déglu di weda youtube o facebook jox leen ñu topic su ngeen bëgg a ñu waxtaanee dinañ leen ko lijeentel indi leen ay expert wala ñu wax leen lu ndaw luñ ci jotta xam waxtoon nañ leen ne dinañ waxtaan ci mucca gi te it waxtane nañ ko indil nañ leen imam si mu wax leen ci mucca gi am nañ 35 topics yo xam ne pick nañ ko maxima wax nañ leen long distance relationship gi du fi jeex ngeen li imam Cissé wax ci yofi Yone wante natali ci internet bi wala fun sexy sexing gi skype bek whatsapp gek messenger video call si yone wante ay natal suñuy cër ak jabar yi nga xamne ne bugun am seen jëkkër yi di doxaan si biti tay nak yu ci bari ñu ngi doon wax ak goor ñi ah ñi kenn demul ñu dess de am na yu bari yo xamne ne nak ñu ko wara wax ak jigen ñi ci yiñ wara bayyi bàyyi yu forox yi ñuy oddo ci biir kër yi rek baña def bem ak ndoxaan gu bari gi nekk ci réew mi góor ñiy doxaan seen moroomi doom yi nekk ci internet bi di kolaas xale jigéen ñi 24/7 wax naa leen kooku di doxaan jël néegi jabaram bi néeg bi mu bokk ak jabaram bàyyee ko jabar ji ak doom ji moom mu dem jël néegi doom ji def ko néegam onda di uh, uh, uh, reason ne moom dafa war a xëy liggéey suba te du nelaw ba 2 o'clock falaa nekk ci téléphone am bi jabar ji su ñëwee ibbi téléphone bi saay bu ne fekk ko mu ngi ci télé ibbi néeg bi saay bu nekk fekk ko fa jabaram dina ñëw tëdd si boram def lu nekk du ko tal waaye mu ngi ci téléphone bi di fexe num duggee Skype di fexe num duggee Viber di fexe num duggee Imo ma ne téléphone yi ñoo log di ci password dinañ ci waxtaan long distance relationship bi dinañ ci waxtaan takka jabar bàyyi ko Gambia multiple years dinañ ci waxtaan ma ne cheating gu bari gu nekk ci dëkk bi dinañ ci waxtaan jigéen ñu def dem xew wala satisfy public bi ci sanse te seen biir kër yi duñ ci solo dinañ ci waxtaan kon ñu ngi leen a ñaax ngeen jox ñu topic topic bu ngeen bugg a ñu waxtaanee rek leen ko si comment section si next week dinañ leen ibbil line si ngeen dugg a waxtaan Bax Mane mu ne ha ha ha the way you say caga is very funny to me but very interesting yéen caga ju ndaw ji duñ fi jeex di mu ne the way you say caga xam naa ne moom sax a caga ju ndaw la so oytuwut waaye ñu ngi suuf si ma waxal rek gaa yaa ñoo seetaan ci suuf. Pa euh, Ousmane. Mhm. Gambian moo complexe complexe boo xam ne am na ñoo xam ne. Mhm. Euh, dañoo ne su ma duggee rek Pa Ousmane su ma gisee rek dina ma yem déedéet Pa Ousmane li ko ñor mooy ngeen koo seetaan ngeen jàngasi si ma li ko ñor ngeen koo déglu ngeen koo seetaan ngeen jàngasi dara ñun jàngale moo ñu tax a jóg xooluñ ko xool xooluñ ko xoolu tongoowuñ kenn xuloowuñ kenn ñëw leen. ñu seetaan ñëw leen ngeen yokk ñu xalaat ñu yokkaleen leen xalaat loolu moo ñu tax a jóg te ñu bàyyi nag palanteer gi palanteer bi dafa xat te day métti. mbuuru foofu ko foriñ were dañ ñu seetaan live wala dañ seetaan suñ tegee wala si suuf si palanteer bi lañ seetaanee wala si poot bi xam nga poot moo ëpp palanteer am na ñoo xam ne ci poot bi lañ dee dugga di ñu seetaan foofu ñu bari nag dañoo xaar ba jeex nag ñu door dugga nag taanu waaye yëpp am na solo li ci am solo rek mooy seetaan ñu moo tax soo seetee léegi nga gis 57 people on Facebook gis 58 people wala 59 on YouTube fekka ay thousands of people ñu ngi ñoo seetaan immediately su vidéo bi jeexee si ma si nga xam ñaata thousand nañu seetaan nga bàyyi ko ba ëllëg nga seet ñaata thousands of people nga gis ku ko seetaan ëllëg nga gis sa boppa déglu si whatsapp bi tamit ñu ngi fa ni ma ko waxee ci gannaaw plus 1 404 593 6215 mooy namba bi plus 1 404 593 6215 pour whatsapp bi kon sima rek ma bàyyi la finally fan la ñoo génn next week fan nga bugg yow laa bugg nga tànn ko nag. next fanaa ñu waxtaan si social media ak suñ néegi sëy yi. Mhm. fo naa loolu am solo. maa ngi jox gars yi nag ñaari point ñu wax si social media ak suñ sëy wala ñu wax si divorce gu bari gi lan moo ko waral. divorce gu bari gi lan moo ko waral. social ah. media bi ak néegi sëy yi. tànnale déglu ni mag yi la yu mag yeeg yu ndaw yi léegi ma bàyyi ko nañ ko bàyyi si ñetta yooyu ma déglu gaay yi balaa ñoo tàggatoo mu ne goro yi ñoo tas sëy yi goro yu mag yee goro yu ndaw yi ndax ñoo tas sëy yi social media ak néegi sëy yi social media ak néegi sëy yi wala boog divorce gu bari gi lu ko waral ñetti topic yi tànn na leen ban ngeen ci bugga divorce yu bari yi Leena Njaay mu ne ñu wax ci divorce yu bari yi na topic si ñëw Leena wax na su dee moom kenn rek la ñu tënk foofu ñëw leen na comment si daw YouTube ak Facebook divorce yu bari yi lan moo ko waral social media ak suñ néegi sëy yi wala lan moo waral divorce yu bari yi ak goro yu mag yeeg goro yu ndaw yi seen responsibility lan la Momo 11 si YouTube mu ne nice programme jigéen dafay mokka pooc te cage góor dafay jonge jigéen dafay mokka pooc te cage góor dafay jonge Kopul Sané mu ne those are three good topics ah, moom loolu la wax waaye toppe duñ mun a waxtaanee ñetta yëpp tànn leen benn Kopul ah, tànn leen si benn lañ wax ah, Ngulu Gaal mu ne yee talk about in-laws mu ne ñu in-laws yi Bax Mane mu I really respect you guys big thanks waaw joxle leen topic yi rek so leena uh, uh, uh, um divorce gu bari gi ngulu mu ne ñu in-laws yi couple Sané mu nyet ñetti topic yëpp baax nañ indi leen mo comments bu am mo comments rek bu le ñoo jël let me hear African uh, Queen mu social media ak suñ negi sëy waaw African Queen mu ne social media ak néegi sëy yi moom boobu la bugga African um, Queen social media ak néegi sëy yi moom la bugga dafa mel ni ñëpp daal de opinion si à diverse kii mu ne néegi sëy yi kii mu ne goro yi kii mu ne um, goro yi ak néegi goro yi ndax goro yu mag yi njëkkee yi ñoo tas néegi sëy yi si la mu ne talk about divorce mu ne ñu waxtaanee divorce hmm? ndax da ngeen bugga ñu indiwaat mocca gi jekari yi dul moccal jabar yi ndax da ngeen bugg legi ñu indil jabar yu dul moccal jekari. yi ak ci wali bobu topi gi bopam la de amna jabar yo xamne ne duñ nango moccal seeni yi ah amna na jëkkër jabar yo xamne duñ moccal seeni yi te jekari, yi mas nañ mocca ci biti ma koy wax ne ku ci to ko si ngalam di nga riiti riiti mu tela Leena Njaay mu ne I think in-laws is a topic of divorce Um, sehutau taawi awa seexu u awa sehutau awa mu ne divorce yu bari so mu ne divorce yi dafa melni divorce yi Aysatu mu ne divorce ah momo anyone bro so dafa melni divorce yi kon ah, gañe na lena Njaay mu ne I think in-laws is a subtopic of divorce in-laws is actually not a subtopic of divorce ndax amna in-laws yo xamne ñu ngi def lu bax lolu is a divided opinion Amna in-laws yu def yu bax nak way amna in-laws yo xamne machallah ño lembe rew mi de so dafa melni divorce gi opal ëppal da nga bugg ñew sima oh. ma divorce bi ak in-laws yi dañ a méngoo waaw bari ci biir tey eh, suñu waxee si in-laws mhm. yaatu na mun na am oh, in-law mun naa nekk doo ko mun a ci si benn xat am na yoo xam ne eh, sa goro bu góor mhm. eh, sa goro bu jigéen am nañ in yoo xam ne sax doom bi seen seen doom bu góor jur mhm. seen doom bu góor ki moo ndamoo ne moo ko jur mm. gorogu ci kër gi moo ko jur mm. doy na waar yu bari doy mm. na waar so suñ buggee wax lu gaay taana rek nañ leen bàyyi fii ba ëllëg yow xool si comments yi dinañ xool si comments yi after ñu seet naka la ñoo def ñoom la ñoo ñoom la ñoo bégal kon divorce gi la gaay tànna dinañ dem ci divorce gu bari gi gannaaw ah. ñu tànna divorce gi moo ëppa kon next week ñu toog déglu seen us your comments send us your audios call leen ngeen dugga si indil leen ñu topics yi indil leen ñu seen ideas yi we want to know your ideas we want to know your stories soo amee story te yaa ngi toog foofu am lu la naxari sa biir kër nga bugg a ñu waxtaanee ko soo buggee ñëw mun nañ laa ñëw nga ñëw openly if you want to talk about it if you don't want to come public da nga bugg a pour ñëw si suuf mun nañ laa am si suuf ñu jël sa voice rek su fekkee ne bugguloo ñu jël sa voice rek tamit mun nga ñëw wax topic bi and we will be glad to bring it on mu ne Pa Ousmane for any topic you bring, I'm with it. Fatu Kamara Monepa, also think about the topic I sent to maybe next time. Uh, how Maban topic la, I missed that one, Fatu Kamara, but let us know. But Ninko we are here for you. If you have anything that is bothering you, whether jikar nga jabar nga, harit nga andandoor nga, lepa loo xam ne gis nga ko nii du loo pour dunda ko yow mun naa nekk yow mun naa nekk sa mbokk mun naa nekk sa xarit wala sa àndandoor képp koo xam ne mu ngi am lu moo dunda rek ti néegi seyam loo xam ne jar na pour ñu waxtaanee ko pour askan wi jàngee si we are willing to talk about it yéen a tax ñu nekk fi once again subscribe leen to suñ channel bi Gambian Talent TV on YouTube like us on Facebook Gambian Talent Promotion Instagram Twitter Snapchat Gambian Talent Promotion wala ngeen toppañu nag amin ci jaww rek Gambian Talents Promotion Sima Haydara la ak Pa Ousmane Diouf fii la mooy xoyom xoyomee bu leen fàtte pour support ñu financially sponsor leen show bi képp ko am sa business bëgg a advertise your products and services jokku leen ñu képp koo xam ne yaa ngi ñooy béggee tamit wan ñu ne yaa ngi ñooy béggee we are a non profit public broadcasting network seeni bot la ñuy xoolee seeni gémmeñ la ñuy waxee seeni làmmeñ la ñuy am am am am uh, waxee seeni noppa la ñuy dégloo kon jàppale ñu mooy jàppale seen boppa support leen ñu by donating to us no amount is too small ñu ngi leen ay béggee Fatou mu ne I sent you the topic after the message you just read Ah, dégguma ko Fatou baalal ma rek soo ko senaatoon ah, Baseeku Jaata mu ne I want to know more I can have experience for it su dee gune nga Baseeku waxuñoo ak yow gune yi waxuñoo ak yéen wax naa la mag la ñuy waxal African Queen mu ne thank you very much for the info we really needed it as young couple thank you very much ñu ngi di leen gërëm leen sant a lot for the educative programme well done kon ñu di leen gërëm leen sant till we come back your way next week at 5 pm Gambian time ah, su fekkee ne TRRC bi is on rek we can move it to 6 o'clock ñu ngi leen leen gërëm leen santa jërëjëf for the listening and share the video du leen wàññi da waaye dina yokka dina am ñeneen ñoo xam ne dinañ ko gisee si yow ñu like ko share the video and the audio jërëjëf ci beneen yoon jërëjëf séri sima jërëjëf thank you ba beneen jamono Dima topato man dima taye yow la don gis Gadi dima di dima sago man dima jaxle ey eh. la don gis Gadi magi. Sasuneko. Oh, baby, yow la xam. Oh, baby, yow la miin. Oh, baby, yow la xam. Oh, sentiments of neexte eh, xumbate dagan di sentiment su nak ma andako ak pa Ousmane Diop dama ne li dina bu ndox patas de ko la wax ma yagalen ko wax bepp góori gambien bu jonge man nga pirat man pa Ousmane Diop indi len sentiments nak ay at ngeen di ko laajte tay yépp maag jàllu jéeri dina ñew ak suma ay ciuray ñew su ak suma ay nemale. ñoma ak suma ay harba fufa yi nga xam ci biir neeg bi duma ko wax kenn nak indi len li xew ci cabinet bi li xew ci ronlal yi ak fune nak si ma ma dellu si waat ak moom mu ne am na xar fa xuuxa yeeg yu bon yeeg yu baax yeeg yu tëlin yeeg yu xesew yeeg yu façon yëpp si sëy yi si cuuraay yi si neemale yi si sew a sew yi askan gi lépp loo xam ne dañ ko ragal a wax rek man nii maa ko nar wax ñuy waxtaane liy xew ci saal yi liy xew ci cabinet yi ma ne liy xew ci kaw lal yeeg yi liy xew ci wàññi yeeg wanag yi liy xew ci bedd mi ak ci biir kër yi na mel ni lambi golo te duma ci wax lu bari nag sentiment soo lañ wax ombana lu bari fuñ na sey ne sentiments fuñ tuddo néeg ne sentiments fuñ tuddo lof ne sentiments fuñ tuddo relationship moo tax ma genn ak yent fi nak sentiments su duma ci wax dara dina melni tane bi re banana ku duga su li ma nara wax li ma nara def ah ma si benen facette li dina bu ndox patage ba ko dina deug sa bum la wax ma ànd ak kan nak bi si ma ay dara ñu nara ñëw jàkkaarloo nak xale bi jigéen bi ne man lay tojal gi nga baye wane gi dina melni làmbi golo yu ñu indil waxtaan xew ci turn by turn. Everything in life is turn by turn. Brother man, relax and wait for your turn. Everything in life is done by God. Yeah, yeah, yeah. What's up, everybody? It's your boy Jizzle on this. You're not watching Gambian Talents TV. I'm representing all day, every day. Don't move. Keep it locked. You're done. Thank you.